Thank you. Gambia, Gambia, Gambia, Gambia, Gambia, Gambia, Gambia, Gambia,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

gannaaw wéetaay la nag te wéetaay daf dee mën a cause dépression kon àndaleen nag ak Voice Out Digital ñu génne seeni stress biir kër gi ñu génne seeni ay wéetaay eh, di leen jaajëfal bu baax a baax képp koo xam ne soppe la xarit la àndandoor la eh, jaajëfal nañ leen bu baax a baax wax nañ leen sax ñu doon soppe war a àndandoor wala xarit wala cofteel eh, sax gërëm nañ leen sargal leen jox leen seen wàccuwaay lu tax dégg mën nañu jaar si seeni si parenteeri jàmbur ba far gisaa la ñu ci kon nag ñu leen a jaajëfal bu baax a baax a baax comme ni ñu ko waxee rek la tey eh, ñu ngi ci beneen week beneen jotaayu xew-xew yi jamono dinañ fi dalal suñu sista nag eh, Cuuc Cerno baax moom itamit dinañ ko dalal ci kanam tuuti dinañ wax lu tax ñu dalal ko fi ah, dinañ waxtaanee nag ci boppi waxtaan bi dinañ ko njëkkee ak ki nga xamante ne maanaam mooy minister of sports moom lañ am si suuf waaye Cuuc gannaaw amut waxtu eh, dinañu xamal kan mooy minister of sports muy Bakary Badji ñu ne nit ki bu ñu diw baax na nañ seeti ñu na ko wax te bokk na ci njabootam bokk na ci askanam. moo tax ñu dem seeti ko kan mooy Bakary Badji ñu eh, doon gëstu lu yaatu yaatu ci moom nag mënuñ woon a am lu ñu bëggoon moo tax mënuñ woon a teg depuis nga xamante ni njiiti réewu Adama Barrow eh, toftal na ko li nga xamante ni mu doon li nga xam ne sports dinañ ko seen équipe message nag laataa bu cuuc Cerno ba daanelee waaye bu loolu wéyee tamit dinañ ñu waxtaanee US election bi. Ibrahima Jawo dina doon suñu gani nga xamante ne fas yéene ñëw yéene waxtaan ak élection bi waaye nag ne pour Gambien si toog Amérique la ñoom la ñu war a waxtaanal bu loolu wéyee dinañ xam ne bi yoon ñu bari nekkuñ di dem Gambie maanaam semester season bi because of the lockdown bi nga xamante ne am nañ ko bitim réew lan gàllankoor la mun a def si suñu économie bi foofu ci biir Gambia ci kanam tuuti la muy doon ñu yaatal li nga xamante ne mooy eti xew-xewi jamono kanam bi ko jotaay bi miin ngeen ko kon nañu ne leen dal si seen kër ñu dalal suñu gan cu Thierno Ba asalaamu aleykum hello Eva nuyu nañ la maa ngi lay fay bu baax a baax rek sama ñu ngi laa jox sa wàccuwaay ma di leen ko delloo bu baax a baax di la jaajëfal bu baax baax it is it was quite a very very short it was, it was, it was, it was, comme li nga wax la rek jima jima nara waxtaane moo tax yow nga nangul ko maa ngi dégg mun ngaa xaw ma si loo ñu seetaane soo ko munee wàññi volume bi rek den ñu déggante fi turu ci parenteer bi seetaan seetaan ma seetaan ma si kon ñu dem kon ñu dem ci mën a. Euh, rek ñu bàyyi la ma ne ko ñu xale a baax nangu bi waa Voice Out asalaamualeykum waa Gambia ñi seetaan Eva dégg la ni nga ko waxee la diir bi ma ko waxee léegi gàtt na waaye mënuma laa bañal dara mm-hmm. fi nga toll ci man la ak yoo xam nga daal dañ ko bàyyi noonu rek ah waaw anti cuuc man nag anti cuuc laa ko dee waxee ah dëgg neex yàlla ma waaye nag comme gannaaw moom duma màgg ku ne anti laay wala jamono si yooyu laay dox ngi waxtaanee jëma ne su fekkee yéen a ngi ci suuf rek ngeen dimbale ma ci nataali bàkkaari bàjj bi ki nga xamante eh, lu bañ a yàgg last month la if my memory serves me right si dañ wala daf ko dogal tànk bi eh, fal na ko mu doon ministre of sports Minister of youth and sports ngeen may ma tuuti rek ma génnee déet ehm, waaw sometime aw ma exactly waaye su gaay paree rek dina jëli bi waaw toos leen lañ octobre first si lañ ko def li nga xamante mooy of youth and sports moom Bakary Badji moom lañ la bëgg a laaj jëma boobu anti cuuj tey suñ doon wax ci Bakary yi lan nga ñu mën a ma taamu la mooy dama daan bàyyi xel potatoes di gis ne danga ko daan dugal xam ma gis la nga ko daan la daan topp maanaam ñi ko gisoon naa nga bokk xam kan mooy Bakary ci gàttal lan nga ñu mën a wax ci man mm-hmm. rakka bu sës si man rekka te duma Bakary li ma ko mun a waxal first thing moo nekk Bakary dafa dal mm-hmm. Bakary dafa dal Bakary ba ma ko xamee ba tey mu ngi nekk xale bu ndaw ñu bokk benn koñ musul Bakary fu mu luusee tempam ak teenagers ni ñu mun a temperamental yëpp mm-hmm. musul gis Bakary mu luus tempam benn yoon yow xam nga man naka laa mel suma gaaw a mer waa dafa toog anti cuuj bàyyil waaye gis nga ni nga anti cuuj Bakary du musa jaat si cuuj anti cuuj rek la def noonu nañ ko ba mujjee tuddee ma mama Aiko mooy Ibo Town Youth and Children Organisation <laughs> mama Aiko mama dem si yàlla si oncle Samba Mbow yal na ko yàlla yërëm ma demoon këram ak ñoom Bakary dem ne ko ne dañu bëgg pour mu bàyyi Fatoumata Ñaama pour mu ñëw join si groupe bi mu ne ma mm. cuuj moom yaay yaay bi ma ne ko waaw so Bakary nit ku baax la. Mm. Bakary am na sago. Bakary amut xarma yàlla kenn bat Bakary am na niti démba te loolu dafa jafe si àddina bi tey. Mm-hmm. Bakary ku am niti démba la. Bakary xale bu am yar macha allah macha allah bu ma ko catu parce que ni maa waxee ci moom ni mbugeel ak cofeel gi ma am ci moom sax mun naa ko catu te yëgu ma ko te fekk ko tamit. Mm-hmm. képp ku ko xam. benn kàddu bi nga wax ci moom Bakary déggu na Bakary seetu na yow mag nga ndax kilifa nga te la ko doon sàmma noonu maa ngi ñaan yàlla di ko ñaan di ko ñaan mu gën koo sàmma ba dëggu-dëggu boobu tax ñu xam Bakary dëggu-dëggu boobu ñu xam ci Bakary mu continuer ak moom Diamond Dakar anti cuuc la doon a ah, waaw um, a ah, um, ñu ñëw nag loo wax noonu ci Bakary eh, keroog bi nga xamante ne maanaam ah, jiite na ko mu doon président ñu bari am nañ am nañ am nañ yaakaar ci moom eh, yaakaar bi mooy réaction people bi ñu ko doon observe fu nekk dugal nañ fa fépp koo xam ne media la wala plateforme la boo xam ne ñu rek dem nañ gëstu seet comment si di gëstu nag réaction yi Gambien si towards li nga xamante ne maanaam falam mu nekk ndaw ndaw ñu bari am yaakaar ci moom lan la doon expect ci Bakary Atanga ki nga xamante ko fi euh, ci wàllum ndaw ñi fi mu ne eh, maanaam ministre of lan la ndaw ñi di xam ndaw loo ko xam. ndaw yi di xaar ci moom mooy liñ xam ci moom. Mm-hmm. parce que diir bi liggéey biir KMC ak balaa KMC sax lam doore woon biir Ibo Town Youth and Children Organisation. ba tax ñu nominate ko mu dem neeko muy national youth and national youth and children organisation muy man tamit fi ma jaaroon liggéey ba mu fa doon liggéey continué ba dem CPA liggéey NYSS mm-hmm. astafurlah NYC National Youth Council mm-hmm. liñ gis ci moom ni mu amee cofeel si liggéeyal ngu dëkkaam liggéeyal ndaw ñi put ndaw ñi mm-hmm. foos yaakaar boobu lañ am te ñu ngee ñaan tamit yàlla bu yaakaar boobu tas amiin parce que liñ ko en nii diis na torop mm-hmm. waaw diis na torop te ñu ngi ko ñaanal yan na en bi oyof macha allah amiin waaye nag ñu bari dañ fa dee jaar attitude ñu bari dañoo jaar ñëw euh, nit ñi am ci ñoom yaakaar mu nekk bu métti nag moom ak mu nekk ay youth man because he a youth man euh, soo leen ci ne yi mu wone pour xam naa am na ñoo xam ne xëj na xamuñ bàkkaar yi macha allah rabi dañu wane kan mooy Bakary ministre ma ne ko honorable nga xam ne moo yore wàllum ndaw ñi ak tàggat yaram muy mu nekk doomi Ibo Town nag waaye anti ci ñu si ñu ngee jooy youth si am nañ am nañ am nañ disappointment youth si dem nañ ba xoolee Gambia as a land of no hope for the youth noonu lañ ko gisee a of no hope for the youth xoolee moom mu ngi nii macha allah honorable mu ngi nii ngeen may ma tuuti a aj nataalam bi dafa mel ni ki demaat na ñu indiwaat ko gars yi ñu ngi beta picture I don't know ndax ku nekk si suuf moom itamit Bakary Fatou waaw waaye mu naan ma ne picture is sounding good <laughs> so waaye li ma wax rek attitude youth si ñoom ñooy di future leaders of tomorrow Bakary mu nekk ndaw yaakaar solo lool ci biir ndaw bu jógee ci ndaw ñi dem ci moom attitude there is no hope for the youths ndaw ñi jaxlañ nañ ndaw ñi jommi nañ ndaw ñi waaru nañ tey suñu indilee ki nga xamante ne mooy Mr Honorable Bakary Badjie foog naa ne ndaw ñi duñ def dara lu dut euh, kontaan ci li nga xamante ne appointment nañ ko ko maanaam appointment bi ñu ko jox ngi nii lu ko xis maay attitude ñu bari nag ñu naan ñooy into office dañu leen la down nan nga am loolu ñi nga xamante ne wax nañ ne ah Bakary mi su demee ba toog ba ko rek moom itamit wax dëgg ne yàlla dafa mel ni ay ñoñam lan nga am ci loolu yow mi nga xam ne jege nga Bakary xam nga Bakary. Eva Bakary ndaw la amagu dara bay ñàkk waram mm. karaw bu suk la te buñ seetloo si history Gambia yiñ daan mm. teg ministry of youth and sports. Mm-hmm. ñëpp suñ ay papa lañ woon. so ñooñu xamuñ li ndaw yi di dunda dëgg la so who feels it knows it dëgg la so soo fa tool fekkee yaa ngi nekk di am ay fifty léegi tey nga retire soo fad soo nekkee si place bu mel ni yal na ma yàlla jégal si wax ji maa wax si nii looy xalaat rek mooy sa bopp sa retirement mm-hmm. te tubaar fakkaal na suma càmmeñ ji nag xool leen ko nag <laughs> ndaw la dafay soog a door dañ mm-hmm. ko jàppale rek because léegi-léegi nga gis um, nit bind dara mm-hmm. because xëj na def na tuuti mistake nga bind ko di ko ŋaaña baakar yi niidut loolu fi mu nekk nii lim niit moo nekk nga gis nga def nga def na dara nga reach out edda eh, ko ne ko ne ko ne ah soo gisee dañu amoon yaakaar ci yow li leen lii nga doon def te dafa mel ni fi mu nekk yaa ngi jël beneen yoon te nga delluwaat sa yoon bi he will sit back and evaluate himself I know Bakary he will do that dina def loolu mu toog xalaat ne a ah, man de lii la woon kon xaaral ma def nii soo gisee mu demoon taxaw meeyo nekkut ne lu mu utoon la ndaw yi ñoo booloo ñoo ne ko Bakary kaay dañ na soxla ñu am yaakaar ci moom am yaakaar ci moom mhm. te xam loolu óor na ma óor yàlla ne loolu mu ngi si digg boppam bi loolu mu ngi ci digg boppam bi ne soo gisee lii feeñ because wax na ma ko mu ne soo gisee lii ñëw tey li ma li ma ndaw yi ooyoon ne ma ñoo taxawal leen pour meyo bi diga la Bakary si woon na waaye si wutoon noonu bam e. mhm. génnee pour meyo ca la gën a so lu jiit njaag looloy njaag waaye attitude uh, nak léegi mu ngi into public office xam naa ne nag critics yeen fans yi wala yeen family nak ci nak lolu du ñàkk te wax dëgg ne ñaanu ñaanuñ yàlla nag ñu indi ko ci suñ togu bi mu bu tanga jër bi ñaanaluñ ko ko wax ne ndaw la ñu ñaanal ko rek ma égalé sako oh. waye nak public figure la comme li ma wax all eyes are on him ñu ko wax ngul bu nekk nak mu jël mom bu day ñun bi ne turam bi turam rek na ko xam ne eh, is on the watch list because public figure made it eh, because Nekato the bakery, the normal bakery of Ibotao. Uh, eh, no, he nekk dañoo ne ministre ministre ministre Gambian ministre bi la ko waxee wala ministre boo xam ne moo ndaw ñi te branche nekk mu nekk branche Nekato nag anti cuuj mu nekk branche boo xamante ne yut si ñu ñoo amee ne nga xam ne mooy pebble si bakery su liggéeyee tuuti rek kenn xamut li ci kanam raw na Ibot ndaw ni sax óolu biñ ko óolu woon ba dem taxawal ko pour mu nekk mayor of Serekunda mënaan nañoo am óolute boobu sax benn ko mu doon président kenn xamut waaye nag comme li ñu wax rek dañu bëggoon yuñ bëgg a indi pour Bakary because xamuñ ko woon ñu ngi doon investigate waaye depuis on the post after loolu ñu ngi doon gëstu di xool kan mooy Bakary because man personnally xawma ko and ñi ma jege woon bu baax a ko woon so bu yaatu waaye dina na bu baax a baax sa waxtu bi ko waxee yàlla bu yaakaar foog na branch boo xam ne nag one of the biggest branch youth si ñooy Gambia nañ ko may one year ñu seet lan la mm. liggéey su after one year bi nga ooyaat ma ma ñëwaat incha allah dinaa la uy yéen am ngeen yaakaar si Bakary de ah anti ah, ah. waaw ngeen yaakaar olu naa ko dañ put family aside ak waaye liggéeyam mm. liggéeyam moo set macha allah liggéeyam set macha allah lan nga ñu mën a yokkal ci Bakary ak tant ko xamante ne suñ paree dinaa def suñu own analysis ñëw a moom waaye lan ñu mën a wax ci Bakary lan la ñoo xaar ñun luñ yow li nga xam nit ñi lan lañ mu a xaar ci Bakary si luñ xamul ñun anti coog li ma xaar ci Bakary moo nekk ne scandale yu bari yi ñoo gis politiciens yi ñu di si dal mhm. Bakary mu la nag waaye bu soobee rab bi kenn du ko ci gis kenn du ko ci dégg sax sakatuma di ko si gis mhm. waaw man cuuj jaañ maa leen asoo loolu noonu macha allah moomu noonu mm-hmm. suma jabar ji man maay premier njëkkee awa yaay premier njëkkee awa waaw ah, waa baax na kon anti cuuj eh, ñu jaajëfal la bu baax a baax ci kàddu yi rafet yi nga xam ne ekkati nga ko eh, dañu woon bu baax a baax ne exactly one hour tey moom la ñuy toog daanaka def nañ sixteen jaawoo ñu ngi koo xaar ñu am yu bëri yu ñu war a dinañ ñëw tam analysis bi nga xam ne bëgg nañ ko adresse ki nga xamante ne mooy ministre honorable euh, di Bakary Badji sa final word laataa xale yi dañoo jàngi xam naa ne wax dëgg ma yaay maa ngi ñaan waa Gambia nañ jàppale Bakary mm-hmm. képp ku gis ne mu ngi bugg a jéggi dayoo rek oo ko kaatal na ko bi maa la jox loolu noonu kaatal na ko dañ ko jàppale dina baax incha allahu amna ko binda fi bala nga dem mune bakari I guess he's referring to bakari. Mune he's going to mune he's going to start building stadium and in Naman Namania taw ma ko ko na taw mo ñoom la bëgg a wax xaw ma Namania bakari mune bakari mune is going to start building stadium kon youth uh, lontang bayo mo wax loolu lontang bayo is a youth ñaami lu ñaami na la ñaami na ma gim joge rebe ñaami na la Namina. I'm not Yamina Buga, I'm Yamina. So wow. they get Yamina, which is good. And but now, what you just centralize in there, then go decentralize as well. Um, we think I'm Antony and you start on that area, don't get congested as a minister. More than being Yamina, and I on the right track. And you know, correct, yellow protect GP to meet him. rek kon Antitude ñu bàyyi rek su ko defee ñu ñëw ekkati suñu analyse. jërëjëf Eva jërëjëf for the invite thank you so much. mooy Antitude mu nekk koo xam ne nag wax dëgg ne yàlla keroog bi nga xam ne eh, moom Bakary mu ngi doon campagne pour nekkam ne yow gis naa luñ ci taxawoo bu baax a baax a baax su ma duggee si sam yu bari man ci moom laa ko daan jëlee some of these people are on my friends. on my friend list am na lu tax ma bàyyi leen fa ba tey maanaam mooy rek di gëstu di xool moom mënut a poroxlu rek ma poroxlu dugga screenshot ko sax laa dee am na si boo xam ne screenshot naa ko bu antitude bi WhatsApp a ñu ngi liggéey bu baax ci nii screenshot pour nga xam ne su ma ko screenshotee dina la jox notification ne la Eva Sarr screenshot na sa post bi it su ñëwee rek dinañ leen ko wax ngeen ci nu ba dara dara dara kon jërëjëf antitude kon ñu ñëw si indi bàkkare ji incha allah rabbi thank you antitude mu ngi nii Mr Honorable tey kii la ñoo indi muy Bakary Badji euh, ma seet naka laa ko mën a indee man ak moom rek ah ways euh, i man ak moom rek laa buga euh, man ak moom rek laa buga ways i voilà Bakary mu nekk minister of youth and sports mu nekk branch bi nga xamante ne mu ngi ko ñu ngi ko ko jox mu nekk bunti mu nekk bunti bunti bunti liggéeykaay bi nga xamante ne moo amee Gambia mu nekk bunti liggéeykaay bi nga xam ne moo amee Gambie mu nekk a youth man nag mu nekk a youth man comme lu anti cuuc wala yaram ak tegginam ak nag wax dëgg ne yàlla respectam ñu bari ñu ne maanaam place bi daf ko deserve ñu bari loolu lañu wax maanaam bettut ko ci sans lim mérité la xaw ma ndax dégg ngeen olof ñu naan naam du sansam lim mérité la ci ñi ko xam ak ñi nga xamante ne maanaam toog na ak ñoom biir Ibo Town ñu ne bu fekkee ci yar ak teggin ak discipline la honorable Bakary Badji am ko ba jeex tàkk bu fekkee ci yar ak jox kilifa waree fam la moom Bakary desut si benn yoon xale bu ndaw buy dox sax jox na la kon nag loolu lañ soxla waaye nag di ko ñaax ne ko wax dëgg yàlla is the land of no opportunity and hope for our youths suñ demee tey ba ndaw comme ni ko anti tuuti waxee who who feels it knows it ndaw ñi ñu ngee joy, te ñu ngee yuuxu te Bakary yow you were once once upon a time you were in their shoes xam nga lu ñoo dunda mu métti ñu jeexal high school seen yaay investi ñoom comme yow ni sa yaay investi si yow or one of your parents investi yow ba yóbbu la nga dem school tey yàlla dogal nag ci kattanam ak dooleem comme li ma dee wala duwut ne sa liggéeyi yaay moo la ko may wala sa liggéeyi papa waaye wërsëg ak li nga xam ne moom la la ko yàlla moo ñëw mu may la ko bu ñëwee ci bu fekkee ne education level la ñoo wax Bakary yes he is educated waaye nag bul fàtte ne am na ñu la gën a educated indi Gambia te xëj na amul sans boobu tey na kon soo ko amee sans la bi la yàlla may ñu laa ñaanal sans bi nag yàlla na la jik waaye nag bul fàtte ndaw ñi bul dem ba toog ba comfortable office bi neex rek nga yaacaa yumbe di nga di nga di nga betta ñi nga xamante ne ñoo la yar ñu doon sa kilifa waaye di nga betta askan bi nga xam ne foofu nga bokk muy Josuang waaye di nga betta askan bi nga xam ne tamit maanaam askan boobu lañ la jox maanaam muy basket boobu muy yut si Bakary yut si jooy nañ te yuuxu nañ xaw ma ndax ibil nga sa bunta pour yut si ñu mun a toog waxtaan ak yow yi leen métti yut si amuñ skills skill centers yaa ngee dee ñenn si suñu ay yut sax bëggu ñoo jóg ñu ngi am this mentality of going to Europe ndax waxtu jotut yow sax boppa nga war a mun a def campagne war a mun a sensitize youth si won leen ne li ñu uti bitim réew mu ci réew mi nga war leen a jox time boobu jox leen moment boobu noonu ay na nag liggéey bi nga am sa bopp bi naam diis na dis boo xamante ne yal nga ko wàccee ak jàmm en nga ko ak jàmm waaye yal nga ko wàccee ak jàmm it mu jig la ak sa sago bu la ci kenn mere mu nekk na place boo xamante ne yut si Gambie dem nañ ba nga xamante ne fu mu nekk nii lu ñëw dunda ñoom rek a ko xam te yow mi nekk ndaw yow mi nekkoon seen place xamoon seen dàll yi ni mu méttee ak ni mu dangoon seen côté yow rek yaa leen ci mun a gindi ndi ku ko dundut mënu koo xam ñàkk ku ko mosut mënuloo xam nu mu toll euh, soo ko xoolee rek ñu compare ko comme Donald Trump ak ñi nga xam ne fii ñooy conservative si comme ni ñu ko dee waxee mosuñ ñàkk ñoom mënuñoo xam ñàkk dama leen a jox di scénario muy eh, ki nga xamante ne mooy one of our footballers gis ngeen ko moo doon campagne a about xale yi maanaam seen diina moo ne si wala seen lonc buñ ko stop because moom mosoon na ko dundoon na ko moo tax foog naa sax ñu jël word boobu he who feels it knows it moom uh, Rashford dundoon na loolu mu métti woon loolu yaayam nekkoon single période mu dem ne prime minister bi su ma sañoon lii doo ko dog ndik man dundoon na ko mu métti woon xam naa lu suma yaay doon go through pour ma mënoon a am lunch kon yow tamit Bakary ndaw ñi am nañ ci yow yaakaar keroog bi la falee ba tey bu duggee di xool di gëstu gisuñu dara loo xamante ne nit ŋàññee na la ci moo xam opposition la UDP moo xam beneen parti la moo xam beneen parti la kenn ŋaañut la te kenn génnut saaga la te foog naa loolu sa respect moo la ko may wala kenn génnut indi sa dossier démbay ndik wax naa la ko tey soo toogee ba nekk dara sa dossier démbay dañ ko indi tegal ko ci ko taabul bu fekkoon drogue di la nga tey dina doon génna bu fekkoon maanaam womanizer nga tey daf doon génna jaxale jigéen ñi dinañ doon mun a génna nag taxal a rip maanaam bandikaam bi takarnaase waaye kenn amul ci yow yoon gannaaw démba nag am palmarès boobu yoon ci yow tey bul nangu kenn mu am yoon ci yow ndaw yaakaar nag a xub saa xaay ñun ñëpp yuut si lañ ñun mi yuut si nekk bitim réew sax bëgg nañoo ñibbi di wax dëgg neex yàlla rek comme li ñu wax la ku yuuxu rek sa côté la njëkk a métti waaye suñu sañoon wii ola better off comme yow bàjji ba seen ni nga better off at ñu ngi laa ñaan comme ni ñu ko waxee ni ko kooku waxee stadium bi it is a good idea because Serekunda xat na xat boo xam ne soo demee ba dem ñaami ne dugga faa gis stadium I think loolu yaa ngi make trans you yaa ngi try to make interlink pour one Gambian si ne leen sax it's not only the uh, Serekunda or uh, the greater Banjul area bi rek lañ war a mun a focus war nañoo focus ci you yeneen yeneen yi tamit si lañ bokk Gambia lañ bokk te foog naa loolu tamit dina try dina dina indi smooth uh, smooth naka lañ ko dee waxee dafa dafa daf dem dem bi ak dëkk bi dafa yomba bu baax ba baax a baax a baax te mun na moo amal njëriñ tam ci dëkk boobu nga xam ne foofu nga ko bëgg bile waaye tamit comme li ñoo wax na gisanguñ benn tey mun naa am. attitude mun nga ma ci dimbale because yéen a ko follow wala group yi nga xamante ne groupam am lañ bokka ndax su fekkee am nañ anything meeting boo xam ne at this minute depuis bu mu toogee office invite na youth si pour toog ñoom waxtaan a ñoom di foog nga waxtaan ak youth si foog nga xam li leen métti bu mu nekk nag youth si joo ngi yëpp jamono ji yow yaa nekk ministre boo xam ne from Banjul to Koina képp koo xam ne ndaw la yow yaay seen ministre ak fu mu munti nekk nag foog naa ne war ngaa mun a jokkale youth si yëpp su ko defee ci meeting boobu du am képp koo xam ne yu sore fu munti nekk Banjul be koy na yëpp seen rep war a mun a ñëw combo area bi yow fi nga wala sa office su nekk pour ngeen war a a waxtaan waaye bokk nañ tamit tamit ñi nga xam ne war ngaa gën a sensitise di di gën a xam naa ne sa liggéey mayu la ko because you are busy waaye pour ngay def sen ngay sensitise youth si rawatina using this back way rawatina youth si nga xamante ne fu mu nekk dañ dem ba jeexal amatuñ xóob saa yuñ eewoo rek naxar la ñoo dunda naxar boo xamante ne mooy man nan laay def ba tekkee ci ma réew te youth si tekkiwuñ te bu ñu fàtte ne yuut si ñoo amee carte yi te bu ñu fàtte ne ëllëg yuut si ñoom ñooy choose ki nga xamante ne moo leen a jiite soo góorgóoroo tuuti rek ndam ngay am dik askani Gambie bi nga bokk naxari wuñ affaire wax digga ne yàlla kuy liggéey rek la ñu gëm te kuy liggéey rek la ñu soppa te coo liggéey lu baree bare rek Adama Barrow bu ko jàppee dara waaye kenn xamut eh, toogu bi ñëpp a ko bugga bu ma sañoon sax man suma góor yi boppa dem taxaw pour nekk président courage tay sa kanam axaka yow tamit bàjji seen mun ngaa nekk président ele kenn xamut because yuut nga ñun dañ bugga sa yuut si ñu gën a génna youth si lañ gën a soxla ñu génn keroog bu nga xamante ne yow nominate nañ la wallahi la suma staan waruma wax suma staan but I was relieved li tax ma relief mooy because yow youth nga and then we need this youths we need this youngsters because youngsters yi lañ need they have more life life nag yàlla moo ko amee waaye dañoo predict rek because ñu neen dool lay ndaw doole ndaw bañ nañ ko ba aji màkk sax dañ ne ndaw kon nag réew it ndaw moo ko mun a yore su ko defee rek seen selfish interest boobu leen fa teg ngeen jàppale ki nga xamante ne mooy president of the republic of the Gambia as of now muy his excellency uh, Adama Barrow moom mi nga xam ne jamono ji uh, moom lañ fa teg ba 2021 élection yi jot benn Gambien si decide kan la ñoo teg a lu teg waaye nag ëllëg kuy ñëwaat itam su fekkee Bakary is doing very well ngay reshuffle di ut beneen beneen ministre Bakary def liggéey boo xamante ne wax dëgg ne yàlla bu màcc ay la. lana tax mënuñ ko faa bàyyi ñu continuer liggéey bi waaye nga xam indiwaat keneen koo xam ne fu bàkkari taxaw moom du fa door sax dafaa ñëw rek nekk still you know human biin boo xam ne du liggéey euh, ndaw yi delluwaat back to square one foog naa ne loolu tamit suñ euh, opposition si wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy taxaw pour jongante ci élection bi war nañoo bàyyi loolu pour pourquoi bu fekkee ne Bakary mu ngi liggéey wala Talibé Soda mu ngi liggéey éleg yow ñëw nga Why not nga boole ko ci yow because Gambia lañ war a Gambia lañ war gis dan nga indi ñoo xamante wax dëgg nañ yàlla ñoom ñii def nañ liggéey bu rafet waaye nag dañoo taxaw like a steel person steel boo xam ne yëngatuwuñ demuñ taguñ Gambia gën taxaw ndaw ñi gën a jaaxle a enu seen loxo yi li ñuy liggéeyoon nag ñu effacé ko kenn du gis loolu réew mi la ñoo te réew mi la ñoo delloo gannaaw it's high time now duñu ci tarxiis lu bari Bakary waaye bàyyi xel you are into public office whatever goes out now Uh, is no longer private wax dëgg ne yàlla yow yaa sa jabar na sa family bi prépare nag uh, dal la xew xew yi jamono bëgguñ na fay indi nag ci toogu boo xamante ne xasta la muy doon waaye ba leen ko jaarale yoon rek dina ngeen ŋaañaa wax dëgg di bi woo leen ñun ñëpp ñu nekk ndaw nga nekk suñ ministre mu neex ñu Bakary loolu la yàlla dogal mu naxari ñu loolu la daa yàlla dogal kon nag Bakary yaakaar bu ñu am ci yow ñun a tant que ndaw yàlla bu yaakaar tas waaye nag liggéey bi yal nga ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm ba nag lépp loo xam ne yaa ngi koo def rek sa réew jiital la ci comme nag ci yar ak teggin ak discipline sa body language macha allah rabi mu ngi ni amul benn gàkka gàkka gis nga ko body language am bi is intact discipline bi mu ngi ci moom xool ko ci ree bi xool ko ci ndaw wax dëgg ne yàlla doomi jàmbur la ñu am foofu noonu rek lafal ko cat balaa jabaram sax di fekk la den ndi jigéen awa yombe bala moo fekk la den waye awoyom be ay gis na suñu dut follow rek ma bayil ko xel ne ko manit ami misis te wax diga ne yalla est ce que suma jëkkër daa xuddi karam sax est ce que suma xuddi karam baaji ba seet mi gis ni ah est ce que boo jàng xul ko moom foofu la ñuy em ñu ndar képpe ko waye nak comme di ko wax ne rek ñu dalal ko si office bi waye nak ñu jàppale ko yuut si yene tamit ngeen jàppale ko because yene a ngi toog si si bëri ñu ngi tok idol indi Gambia léegi-léeg gan jógee place door mu am tekki wallahi la tekki di ci bitim réew ñun ñu bari ñu ngi ci ñun te si kanam tuuti su ma duggee si US election si may kii ma seg tuddi tuddi tuddi tuddi tuddi Gambians in America dina bokk ci li ma leen a wax maanaam mooy yuut si yéen tamit ngeen war a mun a am jom soo leen demee ba am ministre boo xam ne pare na pour am jom mu nekk ndaw comme yéen ngeen jàppale ko ci jom Gambie wax naa la liggéey am na fa fu ñu ay dëkkandoor fu ñeneen di jógee ñeneen di jógee ñeneen di jógee ñëw toog Gambie am fa ñun mun nañ faa am ndam Europe is not everything nit jaar na ñëw bitim réew réccu ko réccu boo xamante ne wax dëgg na yàlla su ko sañoon réewam la koy a gàggate axakay nag fii is a land of opportunity Europe neex na neex boo xam ne ku fi dugg rek mënuloo xam naka la neexee kon bàyyi leen loolu xel waaye yéen ngeen jàppale seen ministre ci nan ko mun a jàppalee mooy lépp loo xam ne tegal na leen ko yéen rek yéen a ko mun a support mun na leen a indi lu nekk waaye mënu leen a forcer ngeen liggéey mun na leen a indi lu nekk waaye munut leen a forcé ngeen liggéey te si boobaa nag yéen yuut si yéenaay jógaa di ko ŋaaña naan a ah, suñ ministre bi patati suñ ministre bi patata suñ ministre bi patatele fekk ministre bi yàlla xam na ne wax dëgg ne yàlla lim war digganteem ak yéen ndaw ñi mu ngi koo def ba mu mat sëg waaye yéen itam matawu leen ko fu mu nekk nag bëre bi door na bëre bi mooy diggante yuut si ak ki nga xamante ne mooy ministre bi tax am naa yaakaar rafet nañ jota ci liñ jota dégg ne dina leen dalal te dina waxtaan ak kon nag ngeen jàppale seeni doomi réew jàppale nag ki nga xamante ne maanaam mooy seen ministre comme li ma wax la ndawi Gambien ñu ci bari 75 percent wala over sax 80 percent of Gambian youths majority of them are very very da dañ léebaak torop te léebaak boobu mu ngi leen a tardel te léebaak boobu noonu mu ngi leen a affect Bakary de moom su ko neexee ñu ne wàllam wéy na di tey dem na ba nekk ministre kon gàcce ngalaama moom kon moom la lan na mati de mën a jaar toppa na buksami sori na ba tey mu ñëw nekkul koo xamante ne is an empty barrel moo tax ñu teg ko fa déedéet soo gisee ñu teg ko fa am nañ raison ñu tax ñu teg ko fa kon nag yéen tamit xool leen ci moom mu doon seen rôle modèle ngeen war a mun a xool a kay yéen mi ndaw tey doog a toog ëllëg mun ngeen a toog fu Bakary toog comme li ma wax na aduna poti ndaan la ku naan joxal sa morom te seen wàlla dina wéy ana waali eh, jawara demut ana waali yaayaa jaame demut kon nag na leen leer ne ëllëg yéen tamit soo leen góorgóorloo tuuti rek fu Bakary nekk ne mun ngeen faa nekk moom it mu neex ko mu naxare ko dafa wéy nag ci kaw su muy wéy mu wéy ak legacy comme li ma wax la li wax ne legacy moom it tamit Bakary suñoo ibi di history books of the Gambia rek jaaree ba ñëw ci passam rek dinañ ne ay waay yàlla ñu amaati ku mel ni Bakary Badjie kon ñu àggale sago dafa mel ni ki madame Badjie mu ngi doon binda mu ne thank you Eva keep it up ah, moom mooy Mrs nga jàppale ko rek ah, Awa Badjie nga jàppale ko xam nañ ne nag métti na waaye nag ñu laa moytu critiques yi eh, soo diggee di seetaan loo xam ne ñu ngi ko xas di ko ŋàññee sax man may tookul advice mooy ignoyal page boobu xam nga loo dégluwu du la sonal loo déglu moo la sonal waaye loo dégluwu du la sonal te nga xam ne sa jikkar fu mu nekk ni niveau boobu noonu la eega wax dëgg ne yàlla nag yaa ko mën a jàppale You know, behind every successful individual there is always a he or she behind it The content yi sa jëkkër su ñu ne ngàcce ngàllaama yi yow it awa kenn du la bàyyi what dinañ ne waaw So, wax dëgg ne yàlla soo ko bu naxataloon am noo ko gite ne woon du ko du comfortable ba lu mu mun tey mu mun koo rek kon yow it mi nga xam ne soxnaam nga dañ laa beral di la ne la jërëjëf waaye yow it tamit rek su ko defee rek ngeen it's not just Bakary loon waaye yow tamit awa nga mun koo jàppale yow mi nga xam ne yaay jabaram li ngeen a dunda xam ngeen ko yow mi jabaram sa biir kër sa am na si sa raka yoo xam ne xëyuñ wàccuñ gontuwuñ kon yéen fiil ngeen ko xam ngeen ko kon nag waaye bu mu nekk mbiri népotisme nag su ma jëkkër nekk na ministre naa jël suma mbokk yi mu jël leen teg leen place ñu leen a gestu te suñu ko gisee dañ koy indi teg ko wax alali askan bi Bakary léegi is a product of the askan lépp lu mu def rek askan bi la ñor seen personal life nag amuñ dara luñ see wax wala xew-xewi jamono di ci toog ndig nothing personal uh, private comme diggante waaye xanaa ëllëg soo leen demee ba xeex ba tojante boppa moom it dinañ ko wax kon nga bàyyi xel yow it awa am nga rôle bu la fàtte ne saay boo génnee rek uh, sama caméra mun na laa topp wala suñu caméra mun nañ la naa topp su ko defee ñu la xool fooy dugga ak fooy diina jabari ministre nga comme ni ñu ko waxee rek jabari célébrité jabari célébrité la muy doon te wax dëgg ne yàlla célébrité nga te nag am nañ yaakaar bu baax a baax a baax ci bàkkari te yàlla bu yaakaar tas yaakaar bi nga am ci bàkkari yàlla bu yaakaar tas ak képp xam ne ndaw la mu am yaakaar ci moom ñu ngi ko bàyyi ci ay projet sami kon nag ñu dalal suñu beneen gan muy ki nga xamante ne eh, honorable Jawo moom itamit eh, honorable Jawo ñu dalal ko attitude mu ne our will never respond to any negativity eh, dafa mu nekk koo xamante ne wax dëgg ne yàlla xamal ma ko dara lu bon ci Angleterre fii nii mu nekk ko am fit nag koo xam ne lu ko lu waay def rek mun naa jàkkaarloo yow fajal ko boppam mu nekk a very smart and intelligent woman nag wax dëgg ne yàlla ah, moom ah, dafa mel ni ki ñi pare nañ wala am nañ ñi leen gàggante waaye comme li ñoo wax rek eh, ñun suñu réew is bigger than Bakary suñu réew is bigger than awa lépp lu ñoo def rek Gambia la ñun di ko jiital te Gambia la seen kon both Mr. and Mrs. Taji yelna na indi way oyof oh, ci sen bop bi bu baax kon ñu move on dem seeti ki nga xamante moy jaaw ñu play yal ko music rek ñu play yal ko music Jauh. Iba. suma caméra bi nanguwute ñëw si sa netal bi Mané suma caméra bi ñew. Ma ngi apologize si lolu. di apologize yow ak viewers yi yëpp. waaye su fekkee baax na I will remain on on the audio if that's fine. that's fine Jawo nangul nañ la ko Jawo ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax a baax di la dalal ah, di la laaj rek lan nga am pour wax ci ki nga xamante ne mooy ministre ah, honorable ah, Bakary Badji dégg nga luñ ci waxtaanee léegi maanaam ñu wax ci ndaw te yow nga liggéey ak ndaw Jawo lan nga am pour wax ci Bakary bi nga xamante ne dégg nga ne wala gis nañ ñun ñëpp ne. fal nañ ko mu nekk minister of youth and sports. Uh, Manjaka pour congratulate Bakary I reach out to him uh, he is a good brother uh, xale bu ma xam la nag moo ñoom ñoo take over after ñun ñun ñoo nekk di first batch of the National Youth Council of the Gambia ñoo draft the 1999 mm-hmm. youth policy of the Gambia ma xam ko nag bu baax a baax a baax xam ko si youth circle si wax dëgg ne yàlla bi moo nekk CPA sax xam naa ko waaye fekk na ñun ñëw nañ waaye xam naa ko bu baax muy xale bu am yar. Ah, may ko dee gis xam ñi moo àndal yépp ñoom Pa Malick ak ñi moo àndal ñëpp laa xam ah, cuuj nag suñ jigéen la ñun ñoo noti Nottingham fii te xam naa mhm. ne dox dara si loo xamante ne wala bokkaa kenn koo xamante ne eh, ci naka sudu noonu la moo dox li nga wax xam nañ ne nit la jox nit ci riyar ak teggin man mhm. saa yu ma tasee moom tasee naa moom Gambia mayoral bi an cër la ñu jox bam jeex tak tak tak tak te loolu dafa nekk loo xamante ne luñ marqué ci moom la Ah, Lima ma ko wax nag nit wax naa comme li nga wax ni ah, bind naa Facebook pour wan ko ne ko ah, digga la yaa moom la yàlla jiital tey jii nii def ko minister of youth and sports muy mm-hmm. a massive department boo xamante ne boo xoolee tey mun wax ne Gambia possibly ninety five mun ngaa wax ne sorry forty nine percent of the population are youth comme ni ko waxee there is great youth and unemployment in the Gambia there are issues in terms of uh, young people leaving the Gambia because of the lack of hope. Uh, ñu gee dem uh, through the back way The jaare desert bay Mediterranean Sea bi di ci argument ak yu mel noonu kon am not responsibility bu madam, a mag a mag boo xam ne gàll the other aspect more the sports aspect as well ndax sports bokk na ci li nga xamante ne faa jaay réew ci boppam. Mhm. muy component boo xamante ne xam nañ ne Bakary dina mun a dox ci loolu benn comme ni ko waxee ndaw la. nit la ku dee déglu te xam naa ne ab dina déglu ñi nga xamante ne nañ ko advice ak it moom li nga xamante ne xam na ko mun na ko kon ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla yàlla oyofal en gi mu complete ah, ah, li nga xamante ne mooy liggéey bi ko ko nguur gi sas xam nga yaakaar du dee tas yaakaar ak day yaakeeku ba pare mu door a tas iba kon yaakaar gi yal na moom yaakeeku te it ni meloon Bakary bi ma amoon démb ak barka démb if he continues to be the same I see no issues o problems boo xamante ne Bakary dina ko am. jërëjëf Jawo saa bu dugatee rek wax naa ko xam-xam dafa leen rot lu bare bare moo tax dañ leen rafetlu li nga xamante ne mooy eh, mooy teewaayam maa ngi jégalu tuuti rek dafa am kuma respond ala bu fekkee yaa ngi seetaan still eh, ala maron mun nga maa call through my uh, messenger mun nga maa call through messenger den dinaa pick up sa call bi inshallah and if you have any questions uh, for Jawo tamit su ko defee wax dëgg a yàlla Jawo will answer all your questions tey gaaw Jawo mooy suñu guest bi li tax Jawo nekk suñu guest bi nag tey Jawo bu ñu fàtte ne moom itamit demoon na si jongante élection wax dëgg ne yàlla comme li ñoo wax la muy li nga xamante ne mooy mayoral uh, lifin bi um, élection si jotoon na dem na waaye yàlla defutoon mu àgga mm-hmm. benn tey su ñëw wax ci politique suñu xel xam-xamam yaatu na ci lool te xam nañ next election rafet nañ jot ne pare na pour a li nga xamante ne mooy ndindaal mm-hmm. a ah, ma lu ma ci waaye dama ne rafet nañ jot na foog naa ne mhm. waxkat laay waxal ak ñi nga xam ne dañuy dégg ak ñi nga xam ne dañuy understand euh, rafet nañ jorta ne suñ toogee gis ne jaawoom ngee demaat duñu bettandi wax digga ne na mu neex wax digga ne naa pourquoi lu tax lu dooli am na mbooloo bi am na kàttan bi mu doon ndaw ñu soxla ndaw ñi comme li maa wax na rek euh, but it's up to him entirely it's entirely up to him kon ñu move on jaawo euh, mhm. ñu ñu gis élection yi USA bi US mhm. seen seen presidential election bi jaawo ñu gis Gambia ñu bari react nañ what is your first reaction after bi nga bi nga déggee ne Joe Biden was elected as the presidential candidate for ah, 2021. Eh, sant yàlla because I mean xam nga America yàlla moo leen may barke. iba mm-hmm. America buñ tisoolee sax àddina bi yëpp socc loolu la yàlla def soo ko xoolee I mean it has been nerve wracking pour àddina bi yëpp ku nekk was on edge di follow elections results ñun suñ jógaan julli fajar sax du ma tiddaa damaa toog noonu. di eh, glue onto the newspaper su ma waxtu liggéey job because I work from home mais mm-hmm. di toog di seetaan télé ba mu war a start doora turn off newspaper yooyu noonu so everybody was anxious because uh, at the end of the day li xew Gambians yu baree baree bari mun ngaa wax um, uh, Africans in general wala the BME community mainly ñu bari gis nañ Trump bi mu ñëwee nekk a président uh, mm-hmm. fitna ak loraange yi nga xamante ne teg na ko particularly di immigrants ñi nga xamante ne juddoo wuñ Amérique wala ah, nit leen ñoo xam ne dañ fa ñëw problème yi nga xamante ne moom lañ doon jànkuwanteel ak yooyu fitna yi nga xamante ne ak comment si moo def ah, rational decision si moo jël te yi yëpp ay mbir la yoo xamante ne day woori nit ñi so nit ñi bëggoon nañoo gis change yàlla nag indi koo xamante ne moom nekkoon na ci ron Obama muy ah, Joe Biden as you said mu nekk mhm. koo xamante ne lu mu bon bon xam nañ ne dina am loo xam ne nampee na ko ci Obama te Obama alhamdulillah is still around so hopefully moom tam dina ko gaay dina ko support te the people uh, ñi ngi gis ñoo xamante ne mu ngi team up ak ñoom uh, from his party yaakaar am na si trop te we believe that ne most likely policies yi nga xamante ne uh, Trump mu ngi ko doon jéem a indi more than likely xëj na new government bi di ñëw dinañ mun a unravelaat loolu yëpp su ko defee mu nekk loo xamante ne dina favor not only the Americans waaye uh, generally the immigrant community as well But for America tey youth and unemployment bari na fa moom mhm. particularly si nit ñu ñuul ñi nga xamante ne ñoo nekk America so these are issues yoo xamante ne Joe Biden tey jii moom mu ngi inherit dëkk boo xamante ne mu ngi face lots of challenges nga ñëwaat ci wàlli coronavirus bi the pandemic tey jii America gis nañ ne uh, Trump was was living a carefree attitude when it mm -hmm. comes to the coronavirus. Basically, he was very dismissive of it. This nañ campaign, campagne Joe Biden was very responsible for this. gis sol maskam he was uh, adhering to all the preventive measures yi nga xamante WHO prescribed. so lulu la woon uh, façon leader the two different leaders in the xamante ne ñoo am uh, muy uh, kii uh, naka lañ ko ooyee uh, Trump mi ak uh, Biden mi nga xamante dugas so mota tax am ci moom bu baax a baax a baax ah, ñuy yaakaar tam ne ah, comme li ma wax rek dina nekk a plus pour the ah, immigrant community. Eh, jërëjëf Jawo comme ni nga ko waxee la nag waaye am na ñu bari ñu doon waxee ne election bi dafa mel it was a race race election between maanaam the blacks and the whites lan mooy sa gis ñu bari ñu doon wax ne waaw this is this a race eh, election between the whites and the blacks te Joe Biden is a white lan nga am pour wax ci loolu hmm. Wow, xam nga xam nga soo xoolee di Democrats, ñoom uh, seen seen policies policy gars yi de am dafa mel ni comme fii nii di labour rek seen policies yi gars am it's very very uh, inclusive ba pare ñoom they tend to kind of lean towards the you know the poor people and the majority of like nit ñi nga xamante ne ñooñu soona ñi ñooñu soo soo ko xoolee te majority ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo dee soona ak yu mel noonu daf unfortunately dafa nekk ne it's it's the black community or the uh, the the black community general so ba pare boo xoolee uh, riots yi nga xamante ne ñoo fa doon am uh, ba pare police brutality yi doon am ak yooyu noonu yëpp it was the black community that were affected so loolu tamu mel ni it was a it was a race a presidential race boo xamante ne race I mean I'm talking about color here uh, played an important role as well because uh, the black community Dengisne they were suppressed. I mean, they were oppressed. So mm -hmm. it, they wanted to kind of get back to having that liberty. bi nga xamante ne moom lañ Obama again. yeneen mel ni ne liberty sax Why li nga Momla, ne moom moom la English the one what's good for the goose is good for the gander uh, li nga Momla, ne moom la uh, tubaab yi yelloo xam naa loolu moo taxoon ñoom ñu lean towards heading uh, because of policies yi nga xamante ne moom la wax in soo xoolee gis nañ ko on social media mu ngi quote even the prophet Muhammad muy quote quote hadis bu yonent bi wax ne ku gis lu la naxari nan uh, wala sa mbokka ñu tooñ ko nang ko génne ak sa sa loxo soo ko munutee génne génne ko ak sa laami soo ko munutee génne nga génne ko su ak sa xol um, comme man nga miitital ko soo loolu mu ngi laa wan ne kii nekk na nit koo xamante ne wax dëgg yàlla amul xaaji ak seen nga xooloon uh, Trump nag on the other side he is your typical uh, bala leen na born again the Christian type of things he believes in white supremacist ideas again and again. And yi nekka loo xamante ne it doesn't favor majority of the black community as well yii ñooy uh, issues yi nga xamante ne moo ci génn ci wàllu élection bi jërëjëf Jawo waaye nag ñu gis tamit réaction the people bi maanaam askan bi dafa mel ni ki ñëpp a yàkkamti woon Donald Trump dem rawatina Gambians ñi nga xamante ne ñu di biir America because ñu ngi gis seen a follow on ñu ngi leen a dafa mel ni ki ñoom tam seen bopp kontaan bu yaatu yaatu lañ am ñu ngi focus di biir bi nag ci Gambians yi nga xamante ne ñoo dëkk ñu ñëwaat rek. Ehm, gisoon nañ tam Donald Trump maanaam bu mu toogee woon I think that was last year Gambians yu bari dellu woon nañ ñibbi nañ ndax loolu bokkul li tax Gambien yi tamit a jox ki nga xamante ne mooy Joe Biden seen i carte. Of course, uh, mooy li ma wax the number of Gambians that have been there for years You have ni gis nañ newland, newland, ngi leen ñu ngi leen di ko génne leen foofu the wall that was built between Mexico and the US. No, we took them on Trump la Momo Monyo in the human known. So obviously Gambians, Sembopa, they're part of that minority or they're part of the people that feel that they're affected by by the Trump's administration. Mota nga gis ñoom ñu bare bari they voted against him. Moo tax ñoom ñu bare bari nga gis ñu gën a di celebrate tey jii boo demee Atlanta bokk na ci dëkk in America for xamante but in na Gambians I understand ni next week they are having a massive celebration in Atlanta to celebrate the victory so Gambians yi eh, dañ dem ba gis seen boppa ne ñoom tey ji ndam lii ñi judo America even Gambians in nga xamante nyom damli fa ñoom ndam lii tam seen bos la kon te te ñoom it am nañ rayti génn pour ah, ànd ci loolu noonu waaw ah, Jawo buñ ko defoo ci yan taxaw seetlu moom tamit ngay jox ki nga xamante ne tant que doomi Gambien sa doomi Gambien ñi nekk biir Amérique lan lañ mën a jàngee ci élection bi naam Joe Biden kii eh, Donald Trump dem na Joe Biden mooy ñëw waaye yan fagaru tamit ngay teg seeni kanam pour ñu war koo mun a bàyyi xel ci matuwaay pour su ko defee rek ñu learn from what happened in the past pour mun a prepare in terms li nga xam ne xapu noonu na fi maanaam massive deportation boobu nga doon wax ñu war koo mun a indi wala mun koo war a mun a avoid Ifa gis nga soo demee ci réew li nga war a njëkk a lijjanti mooy sa toogaay. sa wàllu mhm. Gambien bi loolu war nañ di ko seet leneen li mooy sa dëkkuwaay mooy fi nga dëkka loolu these are things yoo xamante ni dafa important yaa ngi understand uh, of course sa health ak yeneen yëpp bokk na ci waaye sa wàlli toogaay te it dëkk boo fa nekkee ibaa dangaa jéem a seet fexe ba eh, bokk ci nit ñi nga xamante ne ñoo tekki ci réew moomu noonu comme li nga wax nga ni Europe it's a land of opportunity America is also a land of opportunity there are lots of opportunities out there so yow soo demee ñi nga xamante ne ñoo fa nekk te lii ñi jéem a seet nu ñoo nu ñoo def ba régulariser seen status nga xamante ni nañ mun a avoid ñuy leen a jël di leen génnee di leen deport ndax ñoom ñu baree baree bari tey jii iva twenty mu nga xam ne twenty two percent of the GDP in the Gambia ah, mm-hmm. ñun Gambians si nekk in the diaspora ñoo ko def du ne Gambien si nekk am kayit rek la ñi amul kayit sax ñu ngi liggéey in petrol pumping stations or petrol stations they call them jigéen ñi ñi ngi nekk ci ay salons di liitaak yu mel noonu di liggéey awas yoo xamante ne yàlla rek xam ñoo yóbbu seen seen yaayi maaka tey ñooy dog mi gàkkee yi ñooy sampa kër yi ak yooyu waaye nag li ngaa dimbale ak loolu xaalis bi ngaa génne di ko def yëpp fexeel ba régulariser sa status tam loolu am na ci solo nga xamante ne yow di nga bokk ci nit ñi nga xamante ne dinañ am baat am kàddu ci réew mi waaye nekk ci réew tam te yow tey jii comme euh, Trump euh, gis nañ leader bu mel Trump nga nekk fa tey mu naxari la te mënuloo bokk ci ñi nga xamante ne war nañu mun a saani karta loolu ñaaw la ndax ñoom utee nañoo ñun ñun indi Angleterre tey jii mun ngaa nekk still a Gambian because you're part of the Commonwealth you have the right to vote. Why in America it's completely different because we haven't got similar systems that you wala bokku ñoo in the commonwealth ak yu mel so these are things yoo xamante ne fuñ jaar ñu suuraale ko te gis nga réew boo fa nekkee tam da ngaa seet li nga xamante ne moom la réew may doxee seen wàlli luwaa seen sarta ak yu mel noonu nga aw ci loolu i ba nga tënka sa bopp ci loolu su ko defee na la musal ci ayib yu mel noonu. jërëjëf Jawo ki ngeen a defee nag mooy Ibrahima Jawo wax nañ leen ko ñu ko fi gën a am yaakaar ci moom yàlla di gën a jàngat na di gën a jàngat nag ci moom waaye nag di leen fàttale ne yéen a ngi ko kal fi nga xamante ne mooy Voice Out Digital euh, seen favorite programme mu doon li nga xamante ne mooy xew-xewi jamono. xew-xewi jamono nag ñi ko xam-xam nañ lu mu doon concept bi xam nañ ko ba tax nag wax dëgg ne yàlla lu xew rek ñu ànd cee jamono jamono tey fu ñu poussé mooy lan US seen élection bi Joe Biden ñu ko congratulate waaye nag di dellu di congratulate képp koo xamante ne rek maanaam kaas nga yow pebbles maanaam pour war koo jox li nga xamante ne mooy dat sit muy Joe Biden jaawoo kon ñu continuer rek waxtaan bi neex na am na bu fekkee bëgg ngeen a contribute kon ala marong maa ngi ko try waaye mënuma koo am mu ngeen maa ko to my messenger wax dëgg number rek laa am ñaar waaye I guess I will look for an number su ko defee yi rek wax dëgg ne yàlla ñu war a mën a waxtaan bu leen fàtte ne xew-xewi jamono di jëluñ ko rek pour suñu bopp yéen tax te yéen lañuy xeexal neex loolu bu fekkee ne yéen tamit seen contribution di ngeen ko indi comme ni ko ala waxee bu leen amee any question pour jaaw tam ngeen maa seen message wala ngeen send call ma directly si messenger bi den dinaa leen uyu insha allahu rabbi kon ñu muuvoon jaaw jaawo leneen lu system lan la gaam lan lañ mën a jànge because def am na benn post bu ma riid xaaral euh, mooy reaction de people yi ma riidal la ko mhm. nga gis turi Gambia feeg na fa sax su ko defee ñu mhm. dugg nag ci kolo ci Gambia bi tamit euh, mais na tuuti rek ma riidal la post boobu noonu right mu ngi nii Uh, this is Trump on Twitter. Hiding a fake Trump. There is a lot of fake account going on these days. Mm -hmm. um, this election is so fake. Um, actually announcing that I will be running for president in the beautiful country of the Gambia come 2021. Mm-hmm. They have the best elections in the history of the world. I guess it's fake because even the writing, this, this style of the, the, style of the writing sounds fake. Mm-hmm. Because it wow, while in your what, since you want to Twitter, one thing the mom and then there was a little, a little of tweets and likes. I'm not 23,540 likes, 6,813 retweeted. So mm-hmm. more like there's some fake media mm-hmm. used as Donald Trump people yang enough to why come they were like read it. when I look at the words and then the wording, I'm not that's not gonna be like Trump and it is a fake account. It Jawa, mm -hmm. to compare and contrast US election and Gambia election. Mm -hmm. jamono ji nag ñoom ñëpp ñu ngi doon seetaan comme li nga wax la eh, mm-hmm. toolu nañ ci jamono technologie boo xam ne soo ko bëggut a seetaan sax forcé nañ la pour nga seetaan ko mm-hmm. page boo ubbi ñoom la télévision boo tune in ñoom la website fu nekk rek élection Amérique bi la te ñu nekk réew mu mag nag boo xamante kenn ñëpp a leen all attention were on them. <laughs> xam naa ne his excellence Adama Barrow it ko doon seetaan wallahi la azim mm-hmm. ni nga fajar di julli moom it su julee fajar nelawut because mu ngi koo xooloo ñoom ñëpp daa all glued you know together ñoom ñëpp ay président nañ te ku ci nekk waxtu ñu si wétee rek dañ dee bàyyi xel xalaat ne rawatina ñun Gambia nag ñuy dugg si ci élection jaawo ban jàngat nga ñu mun a jox ci compare and contrast US uh, election and then the upcoming presidential election in the Gambia Wow. Uh, the US elections, they've got a completely different system. Mm-hmm. But they use like ballot papers. In the Gambia, we're still using the marbles, which make the Gambia a very, very unique country. Come mm-hmm. Gambia in the world, uh, drive on on the what's it called, right hand. Majority of the, in Britain, it's it, we're driving on the left do you know what I mean mm-hmm. nga ñëw ci naka lañ ko wax nga pound sterling beeg yu mel noonu xam nga hamne am symbol xam ne mooy symbole dëkka mooy symbole mm-hmm. réew tey Gambie ñun tey jii ni moom lañ use te voting system bi amon over 50 years ago loolu lañ am bente. Degala nam IEC are talking about changing this to ballot papers ak yooyu ñu change drums here. Linga hamente xamante ne the di drums in Dan use ak yooyu waaye tey America ñoom loolu la ñoo def te Amérique am nañ postal voting system Gambie ñun amuñ postal voting system yaa ngi understand yii ak yoo xamante ne ñoo dem jaawo daguma la waaye bala ñoo dem ci postal voting ndax ndax war a ñoo naam ñoo dem ci yooyu loolu gis nga loolu mooy mooy problème bi tey jii yow bala ngaa tokka ba postal voting ñu maakaaw di dëkk bi dëkk bi amul amul amul numbers because tey soo ko ñu ne la adresse a Gambie amuloo adresse lii this is the problem. adresse rek mooy Banjul man bañ naa ko ba léegi maa ngi basé foofu ba boot Banjul rek laa dee gis ma adresse. adresse exactly. Iba bi maa taxaw elections pour Banjul loolu laa doon wax ne leen Gambie fu mu nekk technologie advance na développe na war nañoo mun a war nañoo mun a map out dëkk bi. everywhere Gambia war naa mun a on the Google map everywhere they give biir instead of nga suba Suuba Yiro uh, Koto uh, nga naan uh, Johnson yi Babun Fati yak soo laaxee maraaj bu weex bi ngaa green beeg am I making sense come on we need to Gambia is not massive war kumuna map out jox turi koñ yi gox yeeg areas yi tuddee mm-hmm. comme suñ o the you know uh, kilifa ak yu mel noonu icon yeeg yu mel noonu lii are things yoo xamante ne war na moo mun a am ñu am central database boo xamante ne kon ñi dañ fa nekk dina ko ba pare lii dina dimbale suñoo def census ak yu mel noonu waaye dem naan uh, laatir ku ndaa yiri nga ñaa yiri nga ñaa soo demee ci taati buy bi si ron paak beeg after gamteel beeg after am I making sense Ye are things you are maintaining. su fekkente we're going to change our voting system it's important for these things to happen we need to start map mapping uh, a mapping process for lii muna a mun a America Then I gis America it's in the west obviously I mean you cannot compare the democracy with us. obvious for obvious reasons the resources that are there ak yu mel noonu ñoom am the process of doing uh, what's it called uh, postal voting ak ñu am nekk in the diaspora you're talking about possibly xëy na am you're talking about nearly over hundred and something thousand in the UK wala fifty something thousand in the UK Yo, those people are are uh, disenfranchised The Gambians that you get contribute in the economy ñooñu tey war nañu you a am baat. ak kaddu pour mun a tey ji bu Iva Sarr di taxaw as président ñu ne dama koo sànnil wala sànnilu ma ko Fatmata laay sànnil wala kii laay sànnil lii à things yoo xamante ne war nañoo war nañ koo jàng war nañ cee jàng su ko defee boole ko ci li nga xamante ne mooy our democratization process te foogoon nañ ne with this new republic these are some of the changes yoo xamante ne nañ ko doon indi. Uh, waaye comme ni ñu waxee ñu ngi ci élection bi ba tey te Gambie ñu ngi dem towards election as well. Jaawo mm-hmm. uh, uh, ñu ñëw ci population ci ci ci askan bi. because tey soo gisee askan bi li leen naxari bari na wax nga ko BMY bi you know di black di joo eh, jukki nu mu turaati nu mu turaati eh, kooku ñu rey eh, fàtte naa ko joo ah, ah, joo am na yoo xamante ni askan bi ñu ko dunda mu ngi métti maanaam you know <clears throat> di massive unemployment bi nga xamante ne ñu ngi ko discover si youth si yi yëpp nekk na loo xamante ne askani Gambie tam ñu ngi ko méttilu ñu ngi ko naxarlo three years on now three years on gisuñ dara loo xam ne in terms of development la bi nga xamante ne maanaam government bi ñu fi indi teg ko def nañ ko ndax nit ñi tamit du fed up uh, ba tax na comme li ñu waral this is just dañoo predict ndax ni ñi tamit askan bi because it's the askan we are talking about jaaw askan mm-hmm. bi ñoo fi génnee ki nga xamante ne mooy Trump maanaam comme ni nga wax la immigration si teg na luwaa yoo xamante ne wax dëgg na yàlla nit ñi soppuñ ko aadama ridaat yi rek pour wax leen I am following every comments what you uh, on anywhere fépp koo xam ne dugal ngeen fa seen post képp ku ci comment bu leen jaaxle ne mun naa ko screenshot I am everywhere wala team bi ñu ngi everywhere pour war koo mun a xool bi duñ oo seeni turi nag kii mu ne yes And yes, I did campaign on the law because on the law because Trump's immigration laws does not favor me and other immigrants. It's a Gambian. Yeah. Jawa mm-hmm. is a Gambian. More so this later Mugotal Joe Biden because of the uh, the immigration laws doesn't does not favor her. More tax moom mm-hmm. moom mu votal ki nga xamante ne mooy Joe Biden mu nekk loos yoo xamante ne xëy na am na ñu féegowul uh, nguuri Gambia so far ñoom ndax war nañoo mun a jàngat si élection bi uh, ndax is it too late pour war a mun a gestu seeni ivam war nañ see mun a jàng bu baax a baax a baax ba pare everything lu xew in any dëkka foog naa ne réew bu fekkee ne da nga bugg a natta sa boppa li ñu dee wax rek ne nit ki da ngaa meeso sa boppa ak ñoo xamante ne war ngaa mun a jàngee ci ñoom mm-hmm. bu defu dara munuta munuta root siw boo xamante ne defu dara it iba mm-hmm. def dara mooy mun a root lu defu dara am I making mm-hmm. sense ah, tey jii Gambie war nañu mun a jàngee ci lii ñu xool ne tey li nga xamante ne boo bokk na ci li tax américa majority of the people ñu ngee génn di celebrate people were frustrated for key them, it possibly bad policies yi bokk laws in nga xamante ne favored majority of the people again catering for the needs of the needy You you bokk na ci li nga xamante ne moo tax revolt against uh, Trump you def in a democratic way joke def ko ci hamenteni nga xamante ne mooy sànni carte génne ko fa te ndegem réew yu mel America with millions and millions of voters ñoo mun a jóg change a government Gambia we did it in 2016 so lii nit ñi de wax naan karta du du fooli président wala mënut a génne ni loolu ay waxi naa saay la tey jii Gambia war nañoo mun a xam ne loolu war naa mun a am so li ma bëgg a wax mooy suñu uh, ku am dara loo xamante ne naxari na la wala lii na Gambien si register ñu register ay political parties ba pare ñu dem bokk ci ay political parties tey Iba yow soo bëggee am kàddu ci réew mi wala bëgg a effect change doo ko defee ci jóg enu doo ko defee ci taxaw di saaga nit ak yeneen dëgg la démocratie oote na uute ak yooyu waaye li nga xamante ni mu mu gën a am njëriñ tey ji mooy nga register am sa voters card doomi réew loolu ngaa def te it bu dara bu dara desul lu dul ah, vote wala pour change bu fekkente ne ka nga xamante ne yaakaar nga ni kii nii suma interest nekkul ci moom maanaam policies yi moo am ak nangam ak nangam munuñoo maa jëriñ nga jóg ah, vote against kooku waaye dañ moo tax nag ñu war a ëlbateku génn fu mu nekk nii ci politique yi ah, Iba mii de soo gisee maa ko votal Saar la sant man Saar la sant wala suma maam Saar la santa wala ñëw bokkoon koñ wala ñun ñoo nuroo nangam fu mu nekk nii élection si ñëw yi ñu war a jublu fu mu nekk nii ci Gambie liñ ñu war a jaay mooy policies liñ ñu war a jaay mooy manifestos tey jii parti A buy ñëw ne ñu indi manifesto bon ñu tey jii wàlli agriculture lan nga cee def wàlli développement lan nga cee def education lan nga in indi wali women and youth the I mean families lan nga jox in defense lan I mean uh, naka lañ ko wax safeguarding our territories ak given. these are component things You're ni it's it's important waaye politique Petronet fi ñoo toog tey to naan Eva Sarr de mo fi ñëwoon moo ñu kasaloon boo xool Eva moo ñu loon suñ garab gi Iba moo ñu moo ñu jëndaloon ay football tey Iba su la jëndalee football ci elections bi jox la jaasi wala jëndal la jëndal la net si euh, naka laa ko waxee without lii liyal la na la óor ne euh, xëy nga kooku sa moom la bëgg soo ko joxee tey sa karta juróomi at yi nga xamante ne mooy ñëw ci kanam. ndax Iba Sarr moomu di nga ko gisaat ak ndax jaaw moomu nga saani loon ndax li tax nga saanee ko mooy dërëm ba nga xamante ne joxoon na la nit ki boo ko jox karta tey gambien si war nañoo jàngee ci lii nit ki boo ko jox karta wala nit ki nga ne ko kaay jiite ma na nekk nit koo xamante ne war na laa mun a represent not only nationally but internationally mu nekk nit koo xamante ne am na ideas xam na naka la moo doxalee réew ak yu mel nii these are things yoo xamante ne war nañ koo seet and this should be the markers yoo xamante ne Gambien si loolu lañ war a start di identify rather than muy nekk politique si ñoo bokk a xeet ñoo bokk a lii suma bàjjee na ko lii yoon suñ kër la wàccoon ak suñ nangam jamono jooju moo passé jamono ji nga xamante ne moom lañ nekk this is the twenty first century we need to move with time démocratie fu mu nekk nii dafa change te lii nga xamante ne mooy doxalin bu ees moo am te loolu la Gambie war a doon. Jawo wax nga lu am solo make nga great point waaye nag askani Gambie bente ñu ngi am da mentality karta du ko génnee kii eh, gis nga wax ko foog naa ne li nekk na loo xam ne politicien itam war nañoo gën a emphasize lii ba pare comme dañoo wax ne technologie mu a grow ba pare maanaam mu ngi accessible to everybody because tey soo demee Gambie ñu bari suñ ko seetaanu ci télé bi Mm, world baa ngee evaluate ba nga xamante ne tey nit ñi ñu ngee gis but I think also ne suñ responsibility la pour also ñu communicate with the people of the Gambia rawatina the citizens rawatina ñi nga xamante ñooy youth si wala képp xam ne mun ngaa dem register rek gis nañ nag leneen xam ne Amérique maanaam lan lañ war a mun a jànge wala doomi réewi Gambie war nañ mun a jànge jaawo muy Joe Biden dafa dem campagne waaye yëbalul la la yëbalul la diwleen la enveloppe mu win euh, a toll ci eh, campagne yooyu noonu rather than Adama Barrow tey su moo dem pour campagne dina yóbbu saako tooni tooni maalo pour jox leen ko naan leen leen di comme yooyu wax ni manifesto ak yi nga xamante ne seen manifesto daal jaawo saay bu ñu ko indilee lépp luñ digoon askan bi daal askan bi duñ si dee gis seen bopp comme li ma fi waxoon Bakary la suñuy ñëw promise demee ba toog rek promise yi a dem ba dee rawatina nag di di jox nit ay bunch of envelopes ndax léegi waxtu jawlu Afrique ñu war a mun a génne rawatina Gambie sax la wax ñu war a mun a génne si façon élection boobu waaw jamono jot na moo tax ma ne la si waaw moo tax ma ne la time dafa evolve tey jii ah, kaay yow tey jii man bu ma ma ekkati one million dollars bu bugga ko dugal si suma campagne ne saani leen ma tey jii mun naa am loolu laa jël wala dama aaba nit xaalis wala mun naa am suma savings sax jël dugal ko ci loolu tey nga génn di ulbatiku di jox nit ñi ay li euh, di jox nit ñi euh, lu mel ni ay maalook jëndal leen li ak def naa nga mag def lii te yow lu jiitu élections kenn gisu la nga yëngatu ci lu mel noonu kon dafa mel ni yow tey jii Iba soo ma jëlee man ma jël xaalis bu bari ñëw jur ko tey gox wala jox ko ay nit Iba su ma toogee ñu fal ma li maa njëkk a seet mooy xaalis bi ma dugaloon ci lii de xaaral ma fexe seet fan laay dog fii ban budget laay cot fii ban deal laay defele ma génne ko fii génne ko fii Gambien si lañu war a xam loolu te xaalis boobu noonu tey jii jaawo di ñëw di ko jël di la ko pompe ndax xaalis boobu xaalis yi jaawo la mun naa am sax ni xaalis boobu loolu la boo xamante ni nguur gi ñoo ko jël from IMF wala WHO wala naka lañ ko World Bank ak yu mel noonu yow tey jii loolu bor la boo xamante ni yow mën nga koo lekka tey yow Iba waaye sa doom wala sa ay seet dinañ toog fayi ko these are things yoo xamante ni moo tax yéen ñi nekk ci bunti rajo yi bunti télé yi di wax foo leen jaar ñu jéem a réorient nit ñi jàngalaat leen won leen ni politique dafa am ni moo doxee tey jii Iba mi nga xamante ne mu ngi ote wala jaaw mi oote ne fal leen ma jaaw moomu war naa mun a xam naka la ñoo naka laay def bi mun a am xaalis koo xamante ne moom laay dépassé suma politique naka laay mun a def tey jii boo leen ma falee fan la xaalis bi mun a jógee Gambie ñun suñu économie lu ci ëpp it's tax base waaye tey war nañu mun a diversify di génn from taxation mhm. comme bi ma li ma doon waxtaani local election si ne tey jii Banjul ngaa dem ak yeneen cities yu mag yoo xamante ni gisuloo fa social housing tey Iba yow ñëw naa fi nga dëkk ak you see social housing ak yeneen ak yeneen things yoo xamante ne tey jii su social housing amee ñu jël ay nit ñooñu lu ye néeg yooyu noonu lu ye kër yooyu noonu mu nekk under the council wala under the municipality wala nguur gi moomal ko seen bopp ñooñu di fay di fay rent ak yooyu kon nguur gi am na feneen foo xamante ne war na faa mun a génnee xaalis. tey jii li nga xamante ne mooy njiir yi dañoo toog ñu gis su waxtu mango jotee mango season xëy na mun naa am temps bii ñu ci mango season aussi mango yi jur gi baree baree baree bari ba golo yi dañoo ñëw di ko lekka njugu bi ñëw di ko lekkan di bari na mënatuñ ko li tey ndax jamono jotul fu ñoo toogee pour mun a amee processing farm euh, processing euh, senta boo xamante ni mango yooyu nañ ulbati ko def ko juice lii ko def ko ci ay cartons wala ci ay butéel comme cold bi nga xamante ne doguma la comme cold room bi nga xam ne tayi di taali defal na ko waa Sarakunda pour bay exactly waaw nga am cold room bu mel noonu loo xam ne waaye adding of course the necessary preservatives bu ko defee mu óor la ne loolu dina am longevity su ko defee bu jamono mango passé nga génne loolu yóbbu ci marché bi jaay ñi nga xam ne bëggoon na ñoom am mango am mango tamaate dañ ko gis jigéen ñi jël ko di jóor ko di ko jaay mu yaaxu amuñ fu ñoo fu ñoo fu ñoo denca yu mel noonu amuñ nuñ ko nuñ ko processé ak yooyu dis are things yoo xamante ne réew war na ko seet nga seet Gambie tey ji ñun am nañ géej goo xamante ne lu nekkaa ci nekkat tabaarikàlla amuñ urus de amuñ dayamoon déggaaguloo ñu ne nal nañ diw bi fii wala nangam waaye tey am nañ géej goo xamante ne lu nekkaa ci nekkat tey géej googu ba lañ koo jël di ko di ko jox di jox sénégalais yi et permanent license pour ñu ñëw mun a fish ngay olbati ko loolu di ko jaay EU wala di ko jox EU ñuy ekkati et tookun amount di la ko jox ndax tey soo amoon lu mel ni six fishing trawlers euh, Iba tey jii ñaata youths nga mun a employ si six euh, fishing trawlers yooyu noonu tey ñooñu dinañ doon toog liggéey ci biir réew mi comme li nga doon wax alia bi nga wax affaire yi Bakary guy di nga gis ne gan yaa ngee ñëw di tedda suñ kow di jëriñu si li nga xamante ne doomi réew mi ci war a jëriñu waaye tey ji bu fekkoon ne facilities yooyu were available moo daan laaj li Gambien su bari nañ doon engage ci loolu su ko defee loolu dimbale leen bu ko defee mu create employment uh, ndax yow tey ji yow benn nit ñu gis nañ even ñun ñu nekk fii wala Gambie sax benn nit kuy liggéey yaa ngi am about twenty nit ñoo xam ne day dependent on you tey soo amoon efficient role mu óor la ne kenn kii Samba mii di liggéey fii mun naa am ne seven nit mu ngi leen a dimbale mu ngi fayal kii school fees mu ngaa fayal ñële ne kii su amee hospital bi moo ko dimbale kon da ngaa gis ne loolu yëpp dafaa desaat ci réew mi these are things yoo xamante ni moom la Gambien si war a commencé di laajte IVA waaye buñ toog ba élection di jot si ñu gis ne jaaw mi bugg a taxaw de ñëw na wàccee na fii nii tey di wàccee naa ab ay saako maalo wàccee naa fa ay diwlin ñu ne moo baax wala nangam ma oo leen suma politics waxuma leen nan laay doxalee yéen seen gox wala yéen naka laay doxalee réew mi ma indi leen ay sabar ngeen di tàccoo ko féccoo ak yooyu noonu Iba yéen man waxuma leen dara di wala jur di wa ko jur diw mi di wa ko jur ak nangam ak nangam Iba ñuy ikkati xaalis biy joxe te fàtte ne eh, li nga xamante ni moo la fa yóbbu mooy nga jaay yow sa policies nit ñi war a jënd loolu Gambien si war nañoo start fu mu nekk nii di déglu nit ki lan la wax ne loolu la leen a offer rather toog di déglu li nga xamante ne mooy ay waxi nax saay moo ngeen ñuy toog di déglu ay waxi nax saay parce que parce que Ibrahima Jawo moom ngeen déglu fi nga xamante ne mooy voice sa kàddu askan ñu wéyale suñu waxtaan rek euh, ñu seet commencé cuuj euh, ba tey waat cuuj bañ naa dem yóbbu xale yi ñu tëddi nag wala xëy na tëdda nañ sax cuuj Cerno Ba moom mu ne euh, fax broda kon ñu mu ngoon Jawo leneen luñu gis mooy eh, ñu ñëw ci li nga xamante ne comme ba tey ñu ngi desandi ci presidential election bi nga xamante ne mu approach foofu indi Gambia eh, askan bi jaawo lan nañoo am saka yéen sax yow sax bopp sax war nañ di leen xam naa ne with time dinañ def more shows to focus on maanaam dañ daan dañ dee dégg jaawo te ba tey people ba koo wax with all these things wax yi ñoo wax yëpp naan su jógee kan mooy toog xam nga xam nga a su jógee jaawo <laughs> Ajaawo ñaata ñaata millions of citizens am nag benn tey nit ñaa ngi am that mentality Jaawo su jógee kan mooy toog wala ba pare te ñu la ne a yóbbu Gambia Jaawo lu si sa tontu ci ñeneen ñi nga xamante loolu loolu xaste la sax pour réew mi Iba ndax li tax mu nekk xaste tey jii ñun dañ war a bàyyi politics wala political parties evolve around one individual Jaawo tey jii moo taxawal National Computer Party dëkk bi yëpp. believe ne Jawara the party is identified with Jaw Jawara moom mooy moom parti bi mooy lii mooy nangam mooy diri mooy nangam at bu jot Jawo mooy taxaw buñ ko winee at bu jot Jawo ngeen jël falaat nangam yaa ngi understand te tey jii bu Jawo demoon bene faa wàcce wala tey jii nit ñi dañoo wàcc nga jega ah kenn waru ko or kii nga xamante ni moo commencé parti wala moo faam parti bi ñoom Père Sarr Ndiaye faam nañ fi parti ñeneen faam nañ fi dem nañ ñu bàyyi ko fi. Iva dañ war a xam ne àddina gii nii mënuñoo jeexal lépp te xalangu dajul suuf yaa ngi understand try nga tey jii jaaw a try na yàlla defut ma mun a dugal keneen nañ jox keneen opportunité rawatina yuut si moo tax man boo gisee ma jóg dugal ci politique lii la na yuut si jóg ñu boole seen boppa ci wàlli politique jamono ju ñoo toog di seetaan ba pare ñu nañ make sure ne xool nañ positions executive positions in the political parties nañ bàyyi jamono jooju ñoo toog war a nekk buñ ñu soxlee rek ñu use ñu suñ paree ñu jël ñu tegee ñu boor def loolu jigéen ñi nañ jóg ñu jël executive positions ñu laajte the mantles of leadership ñoom it ñu ulbati ko xam ne ñoom it dañ am cër ci doxalini réew mi kon fekk ñu ngee taxaw ci loolu di nga gis ne réew mun naa mi mun dem kanam sanse mun naa am Dinga am leaders tey jii tey bu jaawo nekkee a of a party mun naa am ne eh, Samba Ndiaye ngay ñëw kookoon ci suuf si ron Samba Ndiaye Iba Sarang fa ñëpp gis nañ potentiel si su ko defee tey jii bu jaawa demee ba nekku fa kenn xamul kenn moomul sa bakkan nit mu ngaa dee nit mu nga am accident nit mu ngaa télé wala naa nga bu ko defee lu mu bon bon grumoon nga keneen waaye mhm. parti ñoo jël di ko individualize jël nit ki def ko comme yàlla kenn kooku noonu la lu lu nit wax ci kooku nga gis ne problème la wala tey jii comme liñ gisoon bi Jawara waxee ne faa bàyyi ñu ulbateku di daanoo ko xalangoo ko jooy naan boo bàyyee kan la bàyyee mm-hmm. waaw kan la ñoo bàyyee kan muy ñëw ñun amuñ kenn nangama nangam bul dem bul rek Yaya Jammeh sax amoon na ko waaw dèjà some of the problème si nga xamante ne ñun Gambie yi ñooy suñ problème iva soo amee sa driver te ji muy laa dawalal moto ne dama xiif dama mar dama gomantu dama soona nga ulbateku ku toppa ko naan ko nañ dem rek yoon wi soriwul 300 eh, miles ñu dese góorgóorlu nangam moto boobu soo ci nekkee moto ba kopp Iba driver bu koppa moto bi yow yaa koppa moto bi kon buñ demee be ba ulbateku suñ leader si ne sonn nañ wala ñun suñ boppa ñu dem be marqué ne ñii fu nekk nii seen hmm. seen kàttan a ngee waa wàcce wala nangam nañ leen fiis wax leen dëgga wax leen ne abal leen ñeneen ñeeneen ñëw ñoom the thing is mun ngaa créer parti wala yow mun ngaa establish a parti waaye ideas yi nga am wala policies yi nga am nekkul an individual thing mbiri parti bi la war a nekk so te in as as ne parti bi believe nañ ñoom agenda biñ am te war nañ ko mun a jaay nit ñi kon warumaa mun a gis lu tax mbir mi di centered around one individual leader. Ah, jërëjëf Jawo ah, kon ñu continuer rek ah, li ñu dese si waxtu bari wu daf waxtaan bi neex na lool macha allah politique la ñu dugg nag am moo politique talk show dan pour awyaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy déglu soo ko nekk pour ñu bañ a def benn mistake jaawo kon ñu ñëw rek génn ci wàll boobu noonu suñ fàttee dara nag dañu la laaj ci politique loolu ci bëgg a yokk rek mm-hmm. mën ngaa ci eh, yaatal ko su ko defee ñu bàyyee baaxee ko xel ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan kon rek ñu muuboon ci beneen topic bi waxtu baa ngee ñëw jees maanaam jaawo bi yoon gis nañ ne eh, ñu bari duñ dem Gambia de eh, because of coronavirus bi <laughs> euh, comme li maa wax laa nii rek économique bi ñun doomi Gambien yi dee dem li tax ma ne not many noonu laa ko defee am na ñuy dem na moo tax ma ne not many soo mm. seetaanee xëy na margin bi di nga gis ne su fekkoon ne last year hundred percent bi ñoo dem bi yoon wax di gën a yàlla ten percent dakay dem mm-hmm. jaaw waaw loolu ban gàllankoor la moo def ci économique bi ci jamono ji ñu toll nii ba pare tourisme ne agriculture nekku daanaam loo xam ne mooy indi comme ci réew mi fu mu nekk ci tourisme lañ ko wéykaat lu si sa jàngat ci ci ci maanaam Gambian tourisme sax laay mën a wax ne fu nekk nii ñun ñëpp iva tey kuy dem di nga gis kii yóbbu two thousand pounds one week mm-hmm. kii yóbbu ten five thousand kii yóbbu nangam xaalis yooyu foreign currency faa duga ak li nga xamante ni moom la ñu indi bokkee wuta li mm-hmm. tubaab yi di indi waaye Gambie si dem particularly around Christmas ak yooyu da ngaa gis ni ñun li ñoo contribute ci économie bi daf dee mm-hmm. dimbali da ngaa gis ne business daf dee boom tey jii damaa joxe exemple comme Banjul dañuy am a week long festival tey mhm. kaay jaay gerte saaf ca boppi koñ ba kaay jaay ndox kaay jaay nen buñ baxal ki jaay mburu liba kii jaay kéeg ak yu mel noonu nit ñaa ñëw di jënd ak activité si fa am kooku yaa ngi dimbali kooku ndax mu ngi am an income generating activity am I making sense moto yi play di yóbbu nit ñi di dem di ñëw ñaay jaay essence ak yooyu da gis ne lii yëpp su tey jii because of the pandemic loolu mun naa wàññi économie bi mun naa na mun naa na saxal lu baree baree baree bare yaa ngi dégg waxatuma laa li nga xamante ne mooy tourisme bi ci wàlli tubaab yi nga xamante ne ñooy gan yi tey ñun ñu bari suñ brodas yeeg suñ sistas yeeg suñ yaay yeeg suñ tante ñu ngi liggéey ci hotel industry bi waaye tey jii am na ñoo xamante ne am na suma benn doom baay boo xam ne manager la in the hotel di barka di mbare maa laaj mu ne ma they've been laid off uh, they've been laid off for depuis the first lockdown ñu ngi leen doon fay seventy five percent of the salary léegi mu ne it's it has to go down to fifty percent yow nit koo xamante ne xëy na mun naa am five thousand la doon am salary mu ngi war a jënd courant war a fayal doomam yi school war a jënd maalo ak yeneen ak yeneen it's a domino effect soo ko xoolee it's one thing leading to something else ni moo impacté nit ñi tey nit ñaa ngi soona even loo dee man dama dee toog léegi-léegi di ragal a taal sax suma phone bi ndax boo ko taalee message yi ngaa jot ci dimbale ma ci nangam suma doom bi dafa feebar wala dama dañ ma bindal garab aw ma lii wala courant aw ma ko wala xale yi man yooyu a things yoo xamante ni daf day nekk suma weakness te Gambie ñun amuñ a social system yaa ngi understand comme fii bi nit ñi toogee liggéeyu you had the you had the government stepping in di jox nit ñi di leen dimbale. Eh, mm-hmm. eh, yu mel noonu Gambie government gisuñ yu mel noonu dëgg la joxe nañ maa la waaye tey jii. famille boo xam ne six nit dafa dikk seven wala ten nit nga yëkkati benn saako maalo jox leen jox leen half gallon diw leen loolu su leen yóbboo weer try nañ yaa ngi understand these are things yoo xamante ne eh, moo tax réew mi fu ñu jaar ñu jéem a seet other means buñ àddina si fi mu nekk nim tëddee tey ñu ngi rely too much on tourism iva Gambia ñun we've got mooy li ma doon wax rek we've got eh, the river Gambia loo xamante ne yàllaa ko jox muy tey ji mun ngaa jógee Banjul dem be koy na jaar jaaree ci géej gi river transport war nañ ko mun a dekki laat yaa ngi understand boo boobaa ñi nga xamante ne ñoo amee gaal yi ply from one area to one other dinañ mun a am employment yaa ngi understand nga ulba tekooti tey jii war ñu mun a seet di agricultural sector iva war nañu mun a mekana modernise ak agriculture tey jii ba pare di the youth that are living di the rural area coming to the urban area because tey jii boo jaayee boo demee ba bay gerte wala nangam tey government jënduñ gerte yi loolu noonu nga ko enu di dem Sénégal ak nangam ñu gis coono gu ci nekk nga ne xaaral ma dem boori Banjul wala Kombo gi dem boori Brufut ak nangam dem Wajmaani fa wala dem toog ci suma oncle lu may mun a dem di génn di foraatu su ma amee suma benn five hundred dollars weer bu dee ma yónnee three hundred ca dëkk ba ak nangam. waaye tey jii soo defaloon ñooñu ñu décentralise mooy leen nga doon wax décentralise lu baree baree baree baree bari eh, di nga gis ne di nga mun a captiver youth si ak ñi nga xamante ne ñoo war a toog ci dex gi pour ñi nga xamante ne ñoo war a mun a béy comme witeen gi lu mel ni gerte gi these are things yoo xamante ne internationally war nga ko mun a jaay war ñu mun a seet tey jii ñun Gambie war nañu mun a stop pour import lu mel ni rice war nañu mun am suñ maalo boppa goo xamante ni dëkk réew mi ñoo ko fa lañ koo lekkee yi il va these are things yoo xamante ni war nañ ko mun def rather than ñuy rely on one sector eh, nga xamante ne bu fekkente ne comme problème am comme mbas bu mel avec tourisme ba tey nit ñi mënuñoo dem réew mi a majority of the people tey yi they are possibly absorbed within wala ñoom directly or indirectly ñu ngi benefit from the tourist sector tey jii mënuñoo am dara ndax li nga xamante ne moom lañ doon rely ci tourisme ivan jërëjëf yow dafa mel ni ki Ala dugg na hello Ala. jaama rek you are live on air. alhamdulilah thank you thank you for calling thank you. one thing is there you cannot compare Gambia with UK US. hmm Because for Gambia, we have a long way to go. That's right. Because uh, everything you say is a process. Mm-hmm. Because um, uh, dormant animal grow within stages. Because you have your psychological needs, then you have your safety needs, you have your love and belonging, self-esteem and self-actualization. Mm-hmm what a psychological needs in Gambia is lacking. What we mean by psychological need is you need uh, air, water, food, shelter, sleeping, good clothing, and the production. Mm-hmm. loolu xam <laughs> shelter sleeping condition bi baaxu mm-hmm. reproduction bi xam nga nu what mm-hmm. are the morality rate beside? Infant morality rate beside. So, so you cannot think about your safety net. Mm-hmm. So that is the politicians, politicians, politicians, them to already. Just them with the Sako Mara to get uh, a vote. The fire. Dégala waaye ne waxtu pour ñu get rid of tamit jamono mu ngi de. am jamono mu ngi are we doing the right thing. waaw loolu wax we want them to do the right thing foofu la ñu ni ala you have a great point because comme li nga wana rek psychological you know all these are missing so loolu lañ bëgg ñoom tam ñu xam and then we are ñun ñun we wax pour try for them you know to to to dismiss yi ñoo def dem jox nit ki comme nga ngelaw bi mutu ndax waxtu jotté pour ñu wara mëna mën ci yoyu ñu jox nit ñi dégg bi su ko défé nañu gotal leen ci kaw dégg dégg la dégg la ànd sa yow ci biir kër ñu bokk ndey bàyyi di reyante doomi bàjjee doomi bàyyi di reyante dégg la problème bi la de njigal du nekk ci government du nekk ci téere yi mooy mooy follu si government. bilaay dégg wax naa dégg nga wax nga dégg wax dëgg bu wér nga wax. xeexante bi ci kër yi la. ci kër yi la commencé hmm. loo ne government dem na bi ëpp ñëpp doole ku ëpp ñëpp doole kooku doo xëccoo ya moom moo tax ñu ne ku am doole ak ku amul doole doo xëccoo ya man Eva tey mënu maa xeexa nguur boo ko lee weedee rek laaj ko ki nga xamante ni ah mooy mooy jànxa boobu dimbale woon gars yi pour ñu jógee fële naka la tudaati Ah, mu ngi doon you know def na all what it takes pour mu yóbbu gaay ñi nga xamante ne eh, jigéen jàng jigéen ñi fàtte naa turam eh, turam bi escape na suma mind bi léegi nii bu mu demee ba government soxla mënu to a xeexa government government kenn mënut a xeexa ñoom waaye comme loolu ñoom ñoo am ñoom am di final say ñoom luñ bugga mu am ci réew mi mooy am ay ah, tamit nañ dellu ci di back sof jaame jaame jaame lim buggaan moo am ci réew mi you are talking about Africa. Because power la ñoo wax power bi ñoom ñoo waaw ñoom ñoo amee power bi. mënoo ko to Europe ak You know America. ñun we don't have pure democracy. kon luñ am nii lan la ne lu ñoo wax démocratie démocratie lii lii. lu ñu xam nga mooy mburu buñ boota rek. loolu ko ne dañ ko ñebe. mburu buñ boota la rek ñu teg ci tuuti ñebe. voilà loolu la rek. demokrasi jarang yang democracia né, demokrasi negosiasi né? hmm. cegal demokrasi moom amul Gambia loolu la rek muy Gambia ak Africa fu nekk nag gis nañ fi dina dindi Conakry bari dem boo njaay la waa fi change constitution bi doo taam taam ku ci mun dara dara dëgg la Ivory Coast fi the same thing ana democracia wa Nigeria tamit ñu fa gis na démocratie laaj na wax dëgg ne yàlla waaye at least si ñi nga xam ne président si nga ñi ñi jàppoon. waaw ñun suñ bëggee suñ démocratie bu baax il faut ñu defaraat kër yi. ñu defar kër yi loolu ma sa gis-gis. foofu la si fam backbone bi si family. you must create the family first. foog ñu defaraat kër kër yaa ngi tàng jël jël jël jël jël deema liggéeyam te beeg xeex beeg reyam li ngay dem si sëriñ ci yi bugg a dem ñu ne dootu dem ñoo dem loolu rek moo nekk di reflexe government mhm. jërëjëf Alla sa contribution am na solo nan defaraat kër yi defaraat jikko Mm-hmm, when we have the love and belonging, when we have some good friendship, intimacy, family and sense of connection, right? Eh? Mm -hmm. we can think of esteem, self-respect, status, recognition, eh, strength, then we can have our freedom. Mm -hmm. Once we got our freedom, we will have the desire to become the most that one can be. Mm. Konde agangoy. la dege. Ah, jogun, kumase <laughs> sense of correction be. ni ma la déggee kon ñun àggagul. bu ma àggagul nga naan maa ñun dañu raamagum day dox. <laughs> jërëjëf alaaji ma ne ko jërëjëf ala marom thank you so much jaawo mu ngi xaar eh, waxtu baa ngee dem waaye nag di oh. rafetlu nañ ko bu baax a baax a thank you thank you for your contribution eh, jaawo ñu ngi jégalu rek dañ di kool hello jaawo eh, hello Iba xam naa ne <laughs> man li ma joxoon sama si waxtu sax léegi tey mu Euh, ñu euh, gërëm ko ko doon contribute si contribution am xam nga the beauty of democracy mhm. euh, ku nekk ak ni nga gisee la ak ni nga xelaatee te democracy dafa respect differences I mean those are one of the principles of democracy mhm. so ñu yow tey di mun ngaa gis ne fii nii laa war a jaaree pour doxal réew mi kële gis ne nen la war a jaaree pour doxal réew mi uute googu noonu loolu mooy the beauty of democracy so loolu moom fuñ jaar ñi ko sóoraale waaye boole ci nag tolérance ak it kenn ku nekk def respect. Iba mm-hmm. gis nga réew yi nga gis tey jii ñu ñi la wax naan ñooy di champions of democracy wala ah, mm-hmm. am nañ nit ñaa ngi leen a tiitaroo wala di natta seen bopp ci ñooñu. Ah, mm-hmm. yii bokk na ci ingredients si nga xamante ni boole nañ ko ci seen governance structure bi ah, pour doxal réew mi gis ne nit ñi am nañ kàddu am nañ baat. nit suppress suñ uh, leen there is press freedom I mean there is also uh, liberty of the of the individual to practice whatever he or she wants in terms of uh, association of course to some degree in terms of association wala beliefs ak these are things you have ne From mu jaar ñu jël jéem respect li li tax ma indi lii li tax may wax lii li da ngaa gis ne tey Gambie ñun rek du ni jullit yi rek ñoo fa nekka come Muslims. You've got the Christians, you've got people that are not, uh, not neither Christians nor no Muslims. te ñooñu tey ay doomi Gàmbi lañ seen needs su fekkente one percent la sax uh, war nañ safeguard te kéeta ko these are things you have ne fu ñu you ñu ko war a bàyyi xel ci suñu waxin si nu ñoo doxalee ak yu mel noonu buñ gis suñ boppare mel ni ñun rek ñoo nekk ci réew mi wala ñun yu ëppa ñoo nekk ci réew mi te fàtte di minorities loolu important la ci réew Iba jërëjëf Diawo waaye yaa ngi daaneeloon foofu ñu xalaat kola bi ñu maanaam mooy bi dinañ mm-hmm. xamante di Gambian tourist ñu ko yow su nekk njëkkee wax airport seen kat na ko try to ñu ne to to to bring that sense of communication no mm-hmm. because internet corrections ñi ñëpp mu nekkoon bind yoo xam ne ñëpp a comme ni nga wax la Banjul soo demee festival boobu noonu jaaykati caafi semestre yi sax dem nañ ba nga xam am nañ ñoom itamit seen bunti clubs yi nga mm-hmm. ñu ngi dem di def celebration ñi ñi di interact di dem Mm-hmm. December time bi period bi si la government Gambia daan gën a generate money when it comes to tourism waaye mm-hmm. at nag loo xam ne lu métti te nag ñu ne lu métti rek ci government rek askan bi yëpp ko jaamoo ah, ñu pare na kenn ñëw dugal foofu ndik tey ba yuuxu rek askani Gambia nag la ñoo dundee ndik wax dëgg ne yàlla comme li wala ñu nekkoon ci bij bi export ku munti doon rek nga fa fànn boo xamante ne su touristes yi ñëwati na rawatina Gambian touristes yi nag ñun nag am na si ñoo xam ne wallahi lal azim duñ gedda with the virus or without the virus then mm-hmm. tey su doon amoo ba rek dina am ay benn benn waaye na the amount of um, visitors wala semester yi daan wàcc ci ci last ay at bi noonu wax dëgg ne yàlla duñ duñ wàcc si jaaw non non duñ dem Ivan comme su ma si daal di jënd ticket waaye di ko xalaataat wàcc ndax dangaa toog ba mu yàgg nga ragal uh, ndik benn uh, feebar bi ba pare boo fa demee li nga faa ndax xam nga bu fekkoon ne ñii dem bari nañ uh, coono gi du bari si nit ñu mm-hmm. benn nit waaye tey jii yow tey bu fekkoon ni ay eh, let's say five hundred gambians sa dem tey jii benn hundred gambians ëlbatiku dem boori décembre da ngaa gis ne ñëpp dañ naan a ah, xaaral ma seeti kii ku nekk di séntu loo faa jëlee am I making sense loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ni dina ragal loon nit ñi ak yeneen ak yeneen ba pare comme mooy li ñu doon wax di domino effect tey jii Euh, programmes yi nga xamante ne moo daan am semestre yi di ko organise of course ñu jóge in the diaspora ci big side bi wala si club si comme ni nga ko waxee euh, gisuloo di semestre programme bi ngeen bëggoon a def euh, tànn biiri semestre yeeg yu mel noonu yii yëpp ay mbir la yoo xamante ni dina doon bu indi indiwaat dara comme tey jii di nga gis ne comme programme boobu di am Banjul am using that as an example xëy na am na ñoo xamante ne si kaw ma gi lañ dëkk wala ñu ngi ñëw bu ñëwee fa la waaye comme programme boobu na leen indi ñu ñëw mun a gisaat Banjul nga jógee fa ne ah xaaral ma dem Lancaster suñu kër wala kii ne xaaral ma dem Gloucester seeti suma suma maam wala xaaral ma seeti suma tante xaaral ma def lii this way things time la boo xamante ne fi ñu daan mun a connect waaye unfortunately with lii comme tey jii li nga xamante ne moo xew mun naa am lu baree baree baree bari dina ko dina ko lomfoñ ba nga xamante ne liñ si bugg a def nit ñi duñ ko si mun a def ba pare comme tonaat bi du demee noonu su mbir la moo xamante ne fu njaar ñu seetaat ko xaw ma ndax ah, dañoo <laughs> dañoo seetaan holidays yi naka lañ ko naka lañ ko mappé out waaye décembre bi moom a ah, dina utee décembre yi nga xamante ne ñoo amoon ba waaw jaaw décembre bi dina utee ak décembre yu bare bare bare waaye nag ah, <clears throat> tamit comme ni ngi wax ak askan rek nga xamante ne ñu ngi Eh, boobu tam bëgg naa gannaaw askan bi la ñu eete ñoom xew-xewi jamono dañuy toog fii tax a jóg di wax di leen bàyyi loo xew di prepare of time am na si ñoo xam ne gisoon nañ gàllankoor bu rëy a rëy mu am ci ñoo xam ne du ñuy follow ne government yi eh, UK mu ngi wane ne képp ku bi la yoon du ñu jëli ay plane wala jëli seen ñi nga xamante ne seeni doomi réew lañ nekk ci biti ndék lock nañ daaw te dañ bëgg a ku nekk mu toog mu am ci ñoo xam ne du ñàkk benn benn yi nga xam ne dinañ toroxlu bëgg a dem pour bëgg a rek biri dise nga jaawoo te jar na ko war a jar ko ñi gëstu nag xam ne demoon nañ maanaam coobu nañ ba dem mu jural leen gàllankoor rawatina ñi nga xamante ne amuñ permanent stay ñu ngi ñu ngi ci visas ñun ñëpp xamante ne ñu fi dëkk wala am na ñoo xam ne mm-hmm. am passeport jaawo ko ci waaw fu jaar nga nit ki nga bàyyi xel loolu il va ba pare bala ngaa tukki generally Gambians si ñooru def loolu mm-hmm. waaye it's important always to look for travel advice the foreign uh, the commonwealth and, and uh, the commonwealth and foreign office nga dem si seen website bi check lan mooy government advice bala ngaa tukki loolu mhm. it's key nga seet lan lañ wax ndax dañ wax ne ku dem soo ñëwee you're going under quarantine ndax da so ñëwee dañ laa war fine wala lan ngaa mën def wala nangam ak yu mel noonu ak su fekkente ne da dem lan nga war def ndax So eggee comme Gambian British yi da nga war contact your the, the embassy pour wan leen ne yaa fa in the event that anything help ndax dangaa dem yaa ngi understand léegi-léeg ñu dem yóbbu suñu xale yeeg yooyu te fii lañ juddoo yooyu war ngaa Gambien bi duy def loolu waaye lii are things yoo xamante ne lu important la yaakaar naa benn coup d'état la woon nineteen eh, two thousand and something la yàggut de mooy last few coup d'état ya mooy bu décembre tatiet bi fa la ma fekk ak suma doom xam nga yaa ngi dem ak ay xaleel nga jaaxle waaye lokki bi li ma dimbale woon man su ma égré man li ma dee njëkk def mooy call embassy bi pour wan leen ne maa ngi fi fii laa dikka ak naa nga mag nga joxe sa téléphone yoo xamante ne lu important la so as soon as the coup d'état dama dem two two or three days after coup d'état bi coup d'état boobu noonu xew that abortive coup d'état loolu noonu xew I had a call from the leen lii lii ngeen a def naanam xam nga these are things yoo xam ne dafa important the other thing mooy ñun dañoo jóg rek jënd ticket nga bugg a jël xaalis bi nga am yëpp jënd ko sanse ak yeneen IVA doo calculer ne xaaral ma ut udan insurance understand nga jëndaaleel a travel insurance IVA indi event that nga dem fekk problème am fa wala tey sa ticket ñu kan sa cancel sa flight wala nangam ak yooyu di nga mun a am order alternatives wala other plans yoo xamante ni di ko a ñib si ndax ku de ñëpp xam nañ Gambie nu mel bu ikkati sa xaalis nga dem IVA bala ngaa ñëw doo dee dese dara yéenay so these are yoo xamante ni should be things you ñoo mun a advice nit ñi ñu bàyyi ko xel benn pour travel advice uh, the other things su fekkee yaa ngi dema xale rawatina xale yu fi juddoo ak yu mel noonu boo eggee the di uh, embassy pour one leen finger nga and all of those la joxe sa details bu fekkee British nga do that or you a resident do that it's important Be pare uh, sooy dem utal a travel insurance as well Be pare keep yourself bul nekk rek concentré ci programme yi nekkal di update sa boppa boo demee ngay xool uh, see online, what exactly is happening? What is the Home Office saying, or what is the, the thing saying, nakalenka or the Foreign Office saying? Why? Nga them concentrate the programme fàtte ne yaa ngi war a ñëw wala yow xëy na bi them, coming comme here, getting a student visa nga wala benn façon visa there might have been something that would have been changed drastically loo xam ne affect sa ñëw again. yeneen these are things you have ne nit ki soo me holiday tam bàyyi ko xel wala ba pare before ngai them jëlal all your vaccines or immunizations yi nga xamante ne war nga koo jël ah, bokk na ci li nga xamante ne dafa important rawatina ñi dem ak njaboot di yóbbu xale yeeg yooyu rawatina comme malaria because Gambia it's a malaria zone it's also a yellow fever zone na nga make sure ne bu fekkee ne amuloo woon yellow fever vaccine in the last ten years nga toppatoo loolu these are all things yoo xamante ne dafa important pour nga xam ko waaye daal am naa suma kayit wala am naa suma ticket gis nga am ticket rek taxul laa dem am na yeneen teams yoo xamante ne foo jaar nga sóoraale ko pour sa yoon mun a nekk. jërëjëf Diaw dafa mel ñëw nañ ci yéex a baax. ñu bàyyi la mu nekk loo xam ne mooy. Iva Iva fi ma bëgg a daanelee mooy démb démba rek ñu ngi am by elections in the Gambia foofu lay daanelee du ma dugg lu bari am nañ by elections ñuy ndokkale NPP si seen victory. Euh, iva ñun ñëpp Gambie lañ dama dee wax waxtu bu nekk ni teen asamaan jarul buuxante fu nit nekk fu nekk di nga gis mm-hmm. political parties ku ci nekk da am noo gisee ne noonu ngaa doxalee réew mi ñoom ñëpp dañ war a bokk ndey bokk baay ñun ñëpp Gambians li nga xamante ne mënu leen koo séedoo iva foo leen jaar kenn ku ci nekk rafetal amaa making sense ñoom ñëpp dañu bëgg a jiite ñun Gambien ñun Gambien si kon ñoom nañ rafetal li nga xamante ne mooy ñoomi neen seen diggante loolu laa leen a ñaan ah, te bu fekkente ne dem nga uti nga ñàkka loolu du gàcce na la uur rek ne ah, da nga uti woon waaye kan doon jaay wala ka nga bëggoon mu jëndee ci yow na nga uti jëndee ci yow keneen la gis ni kooku la moo jënde nga jàngee ci loolu boo ëllëgee booy demati nga waajal sa boppa yóbbul marchandise boo xamante ne dina taaru ci kii mu uur la ne mooy policies yi ñu doon wax ak yooyu noonu te tam il va mbir yi elections doo tupp bañ ne you don't fatten your sip on a market balaa eh, doo toog bañ ne tey la tey la luuma bi nga ëlbatiku sa xar mi ne di ko sol mu diis duuf gànna nga jël ko yóbbu ko ca marché ba yow kay bu fekkente ne bugg nga pour li yaman nañ gis ngay ñëw nañ gis nga won ñu ne boole nga ñu sa ay programmes ak yeneen ak yeneen yii yëpp ay teams yoo xamante ne war naa ne ka jàngat ci élection bi te ñoo xam ne ah NPP bii ma gis nii li ma gis ak lima ma observe si elections bi dëgg la ah, naka lañ ko waxee cër cër jaga ak ñaamina ñaamina west mun nañoo nekk consequences wala award si tuuti tuuti tuuti tuuti waaye nag nekk na loo xamante ne elections bii nii passé bu dimba bi am na noo xamante ne su ko demee woon dina doon nok Adama Barrow confidence am ak NPP ci boppam waaye nim demee nii li gën na koo ah, di gën naa tax mu defaraat ngembam gën na koo yokk a jom yokk ko fit te ñu xam ne the power of the incumbency dafa important dafa am solo torop jërëjëf Iba jërëjëf Diawa kooku moo nekkoon Ibrahima Diawa moom ngeen jóg dégg ñu jaajëfal ko bu baax waaw saay bu ñu ko soxlee nag daf ñu ko dee yombalal nag bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ñu ngi ko jaajëfal kon ñu ñëw si analysis bi rek ñu ndar képp ko comme lu ñu wax la waaye man suma kii message buy dem ci Gambie yi nga xamante ne ñu ngi Amérique mooy li jaawo daane li foofu laa yëkkatee learn from what happened in the past yéen Gambien yi dëkk te amuleen kayit bu leen toog nag yaa ne Donald Trump dem na ngeen dooraati fu cuub seere yéen a koo sol fu mbuba baaxee bu seer ñu jógee ko because America seen prices yi ni ma ko dee déggee sax dama dee ne tàngoot you know du du fii because ñu ci bari ñiy jaayee America ñi dee jaayee su ñëwee fii moo tax seen market du dee dox benn cuub nga jaayee ko fo nga jëndee ko four hundred dollar five hundred dollar comme ni ma wax rek xelaatal ne ñun ñu ci bari bitim réew benn yoon lañ ko dee sol duñ ko dee solaate ndax woot na ko woot you know waaye léegi la competition daf ko dee rawatina gab fi nga xamante ne foofu la Gambien si gën a bari gën faa settle I'm not gonna name states fi Gambien yi gën a settle fi nga xamante ne day in day out programmes dañ fa dee bari bàyyi leen seen xel bu baax baax every lesson shared should be a lesson learned every lesson shared should be a lesson learned mu métti woon lool ci kaw ñeena ci du yéen Gambien rek waaye nag gannaaw show bi ñun Gambien lañ te Gambien la ñoo waxal dañ ko sent ci yéen Gambien si Africans you bari la Trump delloo but this is a Gambian you know show Gambian platform do duñ mën a wax an African, so why just be careful learn from what happened in the past They nag yàlla nangu na ñaani ñëpp Joe Biden talk na pour nekk président yes waaye kenn xamul ëllëg in the in the office the vice président jigen la gis celebration si ñëpp celebrate yes and then eh, mix la mix la si jamono jooju lañ nekk ñu ngi ci binga bi nga xamante ne su celebrate zane, uh, the first, uh, the first, the first, the first uh, black, uh, the first black uh, vice president of, of, the United States of America. I'm not surprised. Remember, len ne senators yangi fofu they are blacks. Remember, len remember len ñu bari ñu ngi am this high post. They are blacks. They are Africans. They are whatever. They are mixed. Only blacks. Other nationals you get in America as well. Not only the blacks. Comfy. ñun tey soo gisee ki more moo dem ak Donald Trump fighting against Trump sax suma memory bi maa lost focus a little bit eh, you know kansulo bi there we go ñëwaat na suñ kansulo bi asian Then da ngeen ko dee gis si covid update si Trump eh, stafulay eh, fii Boris nga gis ko moom mu ñëw with all this benefit system for log bi di dem moom moo dee ñëw mu wax ko black is an asian yéen tam Amérique noonu black si bari nañ fa naka la ñoo mën a producer molo la ñoo bi very careful especially Gambians si nekk Amérique waxtu jot na nag ñu war a mën a jël yaaxa bi tege ko ak côté de seen doomi réew waaye wax ak yéen xam ngeen ne xew-xewi jamono su toogee rek du yomba du xool buti kenn jamono jooju ñu daan gis ne ki dem Amérique it is a shame and it is shameful pour nga war a toog Amérique dika ka fa good forty years amuloo settlement settlement nag yàlla moo ko may waxuñ nag wàcca doole yàlla de te mënuñu ko sax waaye forty years nga nekk ci dëkka mu ñëw ba jamono jot ñu la caméra dina dugal ci bi ay plane na yëpp dina seetaan ngay daanu ay crise xeeti manière bu nekk def nga ko danga feebar bugguloo dem sa réew loolu dara gën ko disgrace ko kenn ñaanu ko yàlla su ñoo ñibbi yéen lañ ñibbee sago waaye ñiñ lañ delloo woon loolu kenn ñibbeewul soo sago prépare wuñ woon xam nga su fekkoon ne financially prépare nañ kooku du daanu crise wala muy daanu jalgati ci bi faay because then I'm like, yes, it is over. I am going home. But you know, I've got something for. The Africa and the Gambia la fu naxaree So they dëkkee you west bi for so long fu naxaree So they dëkkee you west bi for so good long you know forty years plus it is gonna be hard thank you Sala Rishi it is so hard pour nga America for good forty years nga dem bugg a setul indi Gambia rawatina nag soo fa amutee dara it's not gonna be easy su la neexee sax nga def ko comme Nigerian boobu ñu doon bugg a fi UK board of mu naan am 16 buñu demee ba test yi xam ne ñoo mu ngi 40 plus si lañ ko delloo no one is exceptional here including myself nag waaye so ñëkkee ñëw ci réew yéen mi fa tooga ngom setulaan fa loo war a mun a def mooy nga lijjanti kayit that's the most important document waaye nag ñu toppa bànneex bi toppa yëngoo bi dem ba jënd fa kër toog setul ba mel ni ñoo fa moom te amuloo kayit loolu dafa mel ni ki yaa ngi jël sa xaalis di ko gas si suuf yes jamono jooju Amérique ñëpp Amérique lañ daan bëgg a soo demee ba am fa doom xale bi dafa am passeport boobu noonu gis nañ ne loi yaa ngi change including Angleterre jamono jooju soo ñëwee nga juddoo fi sa doom juddoo fi wala nga wasine fi sa doom bi automatically dafa am kayit waaye it is changing change na bu yàgg sax change na bu yàgg sa kon America yéen learn from Trumps, li nga Donald Trump def learned learn from it bu not talk need di celebrate with Joe Biden ah it is good to celebrate him in power because comme li ñu wax la immigration laws yi nga xam set nako favor feebarwut la yow mi votal ba tax nga dem ko on Facebook or Twitter or wherever nga put the post up and then I screenshot it ma bind ko pour share i am not gonna mention it including thousands of Gambians nag seen reaction ñu ko gis but learn from it moment bi nga xamante ne Gambie ni jógoon nañ mu delloo leen métti woon na ci ñëpp du woon suñ coobare ku sañ ku nekk dangaa ñibbi ak sa xel ak sa coobare lijjanti leen seen kayit yi waaye nag gisee li tax ma wax Amérique yan maanaam because yu bari sax ñi mi nekk Angleterre yi ci bari yéen lañ follow sax yéen Américas bi because xew yu rëy yii nii ñun musuñ woon am baby shower America lañ copy and then I told you Gambians are good at copying Gambians are very good at copying baby shower UK ñun musuñ ko woon a am because of America ñu ngi leen a seetaan ñu ngi gis ñu ñëw ci yéen a ko introduce ñu far mu neex ñu topp ko and we stick to it America nag comme ñu ngi day day live large it is good to live large when you are settled Why so settled there is no need to live large you are not competing with anyone and that competition especially fu Gambie ni day gën settle competition dafa dee mën up competition dafa dee mën up nga ñëw jënd am sa takka sa you know sa sa kilo or te amuloo kay keroog suñ naa delloo yee wax ne yàlla du neex lu la neex di ko def di nga dano kiris di nga daanu because of what digga ne yàlla li nga doon wone yaa ngi misrepresent something ne yangi settle you are doing okay Yangi okay it is not by then because amuloo kay settloo sa do yëpp foofu lañ juddoo that doesn't make you the citizen of that country the passport is the key or whatever the settlement or documentation bi nga xamante ne when they knock on your door sinkoxoolee rek you are safe to stay Africa nag métti métti boo xamante ni ñu ngi fa delloo yépp amul benn follow up including us benn media house bu def follow up bi noise bi bari woon na waaye ñan si ñun ñoo def follow up pour xool ñooñu naka la ñoo dundee foofu noonu mu métti lool mu am si ñoo xam ne sax mun nañ mun nañ cee demee off because that's how bad Gambia and some of the Gambians can be kon be very careful in America. Gambians in America be very very careful yéen Gambien yi America Trump dem na am ngeen Joe Biden Yen ñi amangut kayit seen key priority fu mu nekk li war a def mooy naka ngeen a defee pour am Kate. pour ngeen mun settle setul ci dëkk boobu noonu moo war nekk seen kii priority just learn from the past what happened moment boo xam ne la kenn bugg ko woon képp kuy Gambian rek moment boobu neexut na woon gis sa doomi réew ñu na dëppoo noonu nga dégg ñeneen ni stories ñu naan la forty years ayami am in America awma kayit mu nekk loo xamante it was a bit shameful it was a bit shameful nga settle down live so big live like you know it is good to live like when you are settled am na si ñoo xamante including myself I'm sorry but dama de consider Gambia as not my home anymore because I don't live there Somebody may demee foofu vacation normal for you this is my home I spend most of my time here in the UK than in the Gambia Gambia su ma fa demee yu bari xaw ko place yu bari ñoo ma réer I can't call that place a home yes it is not my home birth or my birth home fi nga xam ne foofu laa juddoo fi nga xamante ne foofu spend si Europe sax is getting closer comme lima spend Gambia because I ay at yu ndaw rek li ma dëkk Angleterre mooy ëppal li ma Gambia ci ay at yu ndaw will I consider that place as home but ñii duñ ko dee gisee noonu ñii duñ ko dee gisee noonu benn tey no matter what comme li ma dee wax la no matter ñi am British passport ñi am American passport bi we are all classified as second class citizens te foog naa Donald Trump bu ñëwee toog wone na ko bu mu ñëwee toog wone na ko it is a home to some of us or to many of us waaye tamit let us be very careful dëkk soo fa toogee whatever it takes pour nga mun a am li nga xamante ne mooy kayiti réew mi wala at least sagari kayit bi la fa teg loolu should be our key priority then leneen li see ñëw loolu dafa nekk extra so learn from Toro Trump bi nga xamante na Gambien si yóbbu leen mu naxare Joe Biden ñëw according to what has been said oh nikoham, he will not act that way but always always gànnaayu Yulen. there is eh, dama dee wane rek ñi soko amedo musa fail in life We always try to you know bring the positivity and then the negativity Holland Donald uh, uh Joy Biden, uh, yes, he might mm, he may not send the immigrants home, but Holland Kotam he might change any minute to send us home. Then get up. ngeen yen me amul kayit ngeen dem uti kayit bu leen toog yaacaaral yumbee nag nekk fa xew su amee ngeen takk seen kilo or dem wala gis sa beneen néebo gambien bi mu ngi sol kilo or na sol kilo oram dem loolu problème am la am na kayitam comme li ma de nekk sooy àndaa moom dangaa wise Mom setul na am na pourquoi yow mu yow yow yow mu mislead di pourquoi mislead i I'll just give you guys this scenario when I first came to this country bu sama doomu bi there is this hmm, xaw ma naka laa ko understand mun na not dina understand sax su fekkee mu ngi seetaan show bi mu call ma I was pregnant mu call ma our status were not the same by then and then comme li ma leen naa wax la rek nekk sooy andee moom you have to be smart and then be intelligent jaru sax nga ko koo wax muy gis boppam wala muy foog añaan te léegi Gambie dem nañ to stage boo xam ne soo waxee tuuti dañu naan la dafa añaan lim ko amul moo that's bollocks to me bollocks ku nekk ku nekk lu la soob rek waxal li la neex waaye yow itamit li la neex rek defal li la neex ak li nga xam ne doon njëriñ ci yow I can remember bitik yu expensive rek la ma daan wax ma dem without her knowing my condition and my status yes waaye dama rey sa téléphone rek su ma paree maay moom sama xaalis bitik bu ma neex lay dugal waaye keroog ba su ma waxtu ngeen jotee sañse naa lu mel ni ki kilo ak poobar solo du doole xel la te taxut bitik yu expensive yooyu ma dem fa solo du doole xeli kese mooy yóbbu nit su ma leen waxee suma dress bi how much it cost me to use Wally Seck bi ñu bari dañoo indi son loxo yi di béréngo di daanu naan ma Eva du doole nit xoolal ci kaw ba si suuf yow nga ñëw sol sa sagari xartum sax génna soo so yéen Gambien si nekk America bi very especially ñi amul kayit be very very careful learn from the past ngeen prepare yourself sooy àndaa moom mu nekk koo xamante ne dafa mel ni moo géet moom na lampay sàkk muy wane boppam rek la bugg fu demee ci xew nag bugg na ñu dar ko géwéri ñu dar ko ñu ko woy defa ko loolu ak loolu yow tagal aside soo ko mu ne gunge sa nit la na gunge ko njansaale ko waaw waaye nag danga war a am barrière nga am limite sa kasoo amutee kayit Amérique gis nañ ne ñoom ñoo daan toog amuñ kayit ma daan gis photos yoo xamante ni ñii bu ma leen doon dégg Amérique maa ngee nampa bu ma doon dégg Amérique ba tey amuñ bi ma leen doon dégg Amérique maa ngee nampa si yàlla si ba tey amuñ kayit suñ yónnee Gambia suñ yónnee waa netaal Gambia kenn geenu leen a mun seen boppa kenn gënu leen a mun seen boppa Amérique nga gis naka lañ fa dëkkee ak live buñ live in Amérique jamono yooyu photos laa la wax album lañ daan yónnee soo ko dippee ñëw benn seen mbuba yi rek jamono yooyu laa la wax mënoon na moo a kër nga gis rangale bi sañse bi waaye tey ñeena ñooñu ñu ci bari it was so unfortunate bu Trump ñëwee bokk nañ ci ñu demaale lan la ñoo wax seen waa kër mu nekk dëkk boo xamante nag soo góorgóorewul bu baax rek dangaa dof muy Gambia because dangaa dégg dañ la koo fàttali yow thirty years yaa ngi America forty good years yaa ngi America nekkaloo fa woon lu dul sañse dañ la koo xasee te daf laa toppa Gambien bi daf ko mun saka sa mbokk yi sa mbokk dëkk comme lu kii wax la ala ala marom bu mu loolu mooy dëkk bi dañ la koo xasee yow dañ la yow da nga woon ndeke amuloo woon kayit because ñu ci bari suñu amutee kayitam duñ dee bëgg nekk home ñu xam ne amuñ kayit because they cannot do much and they, you know, hardly you sympathize with us. Nyom, they think everything shines here, everything is gold and diamond. That's the concept some of these people have back home. They in fact ñun xaalis dañ ko dee wita duñ ko dee I did have that concept when I was there, comparing, you know, my wages with my husband wages. Manako ne ko yow ànd lii when I my liggéey sangam si la if they can pay me this thousand plus yo, mi ngi yow tam whatever xam naa yaa ngi more than thousand plus pounds so the the the the mental the the the naka la the concept wala bu ñu daan am xaw ma naka laa ko waxee sax ñun eh, soo tukkiwu daal doo xam ci gàttal so yéen mi nekk America bi very very careful very very careful America yéen yu yi yëpp yéen a ñu ko jox baby chawa ngeen jox ñu ñu jógee fa fu mu nekk nii naka lañ ko de waxee after party bi sax su xew amee. after party bi naka la tuddaati dimbale leen ma am getting a bit you know out of focus now moom a nekk di daal naka raxasu mu raxasu bi yéen américain si yéen ñu ko indil yéen Gambie yéen américain si yéen ko indil ñaari dëkk yi lañ xamoon parti America and Sweden ñoo nekkoon the most party states or countries America ak Sweden su ñëwee ci parti nañ ko wax te de ñaari dëkk yi rek la woon si si jamono waaye America nag ñoom ñoo jël wax naa la loo gis rek am na général America ñoo général leen des they have their credit cards they live big houses you know why they work hard American boo this not Gambian boo of this mu lige liggéey work boo xamante ne ñii ci ñetti liggéey ñii ci ñeneen ci amuñ time sax for them for themselves it is good now to love yourself it is good to love yourself Why not love yourself when you have a permanent document bi nga Alex, you know su are doing la disgrace Why ñu gis ay Gambian You xam ne ñu ngi We they were not ready so be prepared be prepared very well. When any president coming, Joe Biden time will vanish, whether we like it or not. It will one day. Another person is going to come in. Who is, who is who is that person? I don't know. You don't know either. So let us be pre- let us prepare our mind, prepare us, prepare ourselves emotionally, psychologically. Let us prepare ourselves and get ready. Yet me Kate, my token advice and message to you. muy ngeen jog depuis léegi si luwaay ceeñe noo leen mun a def nag nit nag yootu na kayit te amu ko nde gis naa nit am kayit mu ewu dee ndeysaan buñ ko doon yóbbu ci njabootami he never travel dead bodeem lañu yóbbu kon moo tax nañ ñaan lu ñu jik rek nit nge yootu loo xamante ne jig ko nañ ñaan mu nga def nag xatar xatar bu nekk pour am kayit waaye nag ndekete kayit bi yow do ko njëriñoo yàlla la mooy doxalee noonu kon nag nañ ko utee ci anam boo xamante ne dina sella dañ ko utee ci anam boo xam ne i tamit suñ taxawee ci suñ kanami borom rek duñu am gàcce benn yoon kenn xamut yàlla rek a xam nit ut na kayitam laa leen wax a family relative benn tey demut he didn't deet bo dem lañ yóbbul njabootam can you imagine all this while mu travel nekk in America deet bo dem lañ ko yóbbul kon nag lépp lu ñoo yóotu rek nañ ñaan yàlla yàlla nañu jik nit yóotu na ko nit toog na fi Angleterre nag over 26 years dugal na Kate def na lu nekka yàlla mayit ko Kate ba noonu la ewo ñibi ne man I think it's high time for me to go back noonu la décidé eh, give up England ñibi kon Kate yàlla rek moo ko maye waaye nag nañ sabab yàlla mu ne ngeen sabab mu may leen li wax do not get yourself hook up with with with with with peer pressure dama ko dee and then this Snapchat is doing that peer pressure these days nga gis ko taxaw snap yi danga koo gis takk ay oram mandal si bitiki orbila jugini namu madara ay nah, si lan kelan la jati Ache jang rek achum bum la bousé metta xamulo nim def ndax ora how real is it mun na mo am credit card mudem mu dem si or shop bi mu dem tek ko I can do that go to the or shop I have my credit card 5000 thousand pounds madam jeda da or bi ñata na nga ne ma two ma fay yeah ma fay suma paré ma cancel transaction behind of the camera I can cancel the transaction it is a credit card dama casual transaction nga ne ah kii dee namu dara yi moto yes it is good to live a very very good life if you have it waaye let us plan more especially yéen mi nekk America ñi nga xamante ne deportation bi safoon na fa trop mu métti woon lu bare bare bare this is my token advice we ñu leen a jaajëfal nag képp koo xam ne Gambien la nga demoon vote make this change a big thank you to you all and then we you know openly welcome Joe Biden in office and then also the vice president comme ni ko ñu bari di celebrate for the first time in history mu nekk ki nga xamante ne mooy african waaye kooku tam yaayam su toppoon Snapchat bi toppa Facebook bi bor bu set mu mbele mbele coow la kon ndax moom dina doon nekk tey di vice president I think we all have to learn from this naka how how are we prepared Gambians yi setul America fu mu nekk bari nañ te comme li ma wax ne America sax ñun ñeneen ñu tane woon because Biden yéen foofu noonu racism wasn't that you know da ngeen dee mën am opportunity you know opportunities that they bury. you know that nga get from a foreign country you know with a foreign strong accent so apply I have a lot of connection in America I don't know much but I have a lot of connection in America you know the waxtaan and lan laaj yu you know so why come li ma it's rek is a moment for us to prepare ourselves especially those who haven't got any documentation in there ak su nekkul America sax fu Gambien and nekk amuloo documentation rek pour nga de a para para paral sa toogaay uh, moving on den su ko defee rek ñu war a mun a bàyyi loolu xel waaye nag ñu prépare vice président gisu leen ko woon si dara xëj naa soo leen xoolee profile am awma time pour dugga pour xool profile am pour riir ko pour xam who she waaye déggu leen ko si dara yu nonsense gisu leen ko si dara yi géewi te sante gisu leen ko si dara yi géewi nonsense gisu ko si dara moo tax tey mu mun a fit that position ëllëg will come and nobody knows what tomorrow holds only God knows what tomorrow holds soo fi nekkoon nag ci daraama yi ku daraama lal nga laali tegal ko sa njabooti toog the hall, joxaloo leen attention yóbbuloo leen si school you, not school you by because we all schools are good Why joxaloo leen that moment pour what I'm gonna talk, opportunity comes and it will not knock your door Malima de ma dee rek if comme de ma dee wax suma doom bi if Zainak Iqbal can do it who are you not to do it if Zainak Iqbal can do it you can do it know a you do. whatever whatever what whatever lim am academically you can do it the dafa minimize you bare bare bare bare pour mun then Biden A stars again. We wuñ ko pour i am six A stars pour mun am six A stars pour me, come you know you know mom comme ni ñu dee am first in the Gambia or first six school or first you know it's borough if she can do it what is holding my daughter what is holding my daughter Kinga hamantene mama, ne moom judo come Kamala. Let, let us take Kamala as as as as as, as our example here. Kamala Harris. I think she is yeah Salah. Kamala Harris. So fekkee ne moom mun more moo what is stopping other children yi nga xamante ne ñoo Kamala ñoo fa juddoo ndoon te buñ doon ñëw foofu lañ Kamala judo for man ma nekk Some of them judo for them school what is stopping my daughter to do it so let us try to encourage our children as well to hold this public office especially this high post and this high office let us support them in any angles ninga nga they want to do gaming let us support them through gaming Ninga nga they are good buñ ñëw rek and then ñun Africa loolu lañ oh mom, senator why can't you be a senator no maybe academically my son is not good but when it comes to sports he is good why not ma go into something maybe he's more into gaming maybe he's more into this into that we need to know as a parent what our children on on, on what angle la do me by. So su fekkee ne moom dancer la why can't man you know the best dancer in the world bitim réew lu nekk la fi te la lu nekk métier la fi def xaalis la fi so kon li ma wax rek euh, duñu yàgga waxtu bi mu ngi jeesi tak tak tak tak tak tak tak wax dëgg neex yàlla waaye nag di leen jaajëfal yéen Gambien si génnoon dem vote euh, jërëjëf jëf lañ leen mun a wax ne and then thank you you know your contribution might sound a bit low euh, to the population waaye waaye tamit wax dëgg neex yàlla comme ni ko Tesco dee waxee la every little helps so your little votes has also helped ki nga xamante ne mooy Joe Biden pour mu ñëw into power and we look forward you know to see him in office pour mu def li nga xamante ñun ñëpp yaakaar boobu noonu lañ am si Joe Biden moving on ñu dem nag si Gambia muy Adama Barrow ah, Barrow what can you learn from this and the Gambians in the Gambia eh, gis ngeen ko moo laa to ne moo tax ma ko dee emphasize askan bi moo tax ma naan kaddu askan bi eh, askan bi they are very powerful so yi America ñoo génn ñu votal Trump Trump su taxawoon wax dëgg ne yàlla the podium sami dama daan gis crowd dama ragal I was a bit panicking because am na waaye tey di nga gis ne mbooloo mooy doole nit ñi dem nañ ba songa ko mbooloo boobu noonu daaneel na so the people are the power do not underestimate the power of the people especially yow Adama Barrow and your government do not underestimate the Gambian people and their power and yéen ñi nga xamante ne ay opposition ngeen foofu noonu be very very careful askan bi they are very very powerful when they comes together and suñ ko bëggee génne rek day kan li ma wax foofu noonu tam beneen jàngal la ci Gambians only the pebbles seen karta moo na comme dañoo wax la am nañu Barrow is working towards the change in direction I don't know waaye nag liñ gisagum darul suñu xel liñ gisagum is three years léegi Barrow cannot do anything wax naa leen ko the margin is is is the margin itself is is big unemployment youths unemployment mu ngi you know gap bi mënuñ koo close youths yaa ngi frustrate youths are still using the back way because uh, maa ngi just jot information tey ne am na ñu jàpp ñu ngi jël benn yoon moo génn am yooni bakaw bi foofu noonu ñu ngi ko jël di dem jàpp nañ ñooñu so youths are still trying to make means of you know survival as ah, ma ko mënee waxee that way you know because Gambia is a land of no hope for the youths and that's the reality te waxoon nañ ko Mr Honorable so kon nañ bàyyi loolu xel yéen yéena moom seen cartay, seen carta, mooy seen doole bu leen xuloo bu leen xeex parti boo leen bu leen bekka neen daal képp ba élection bi jot ngeen dem sànnil ku leen neex Barrow I think this should be a you know wake up call for you it should be a xam naa shake na a little bit next election moom wax dëgg ne yàlla Gambians will use their you know their their their their cards su fekkee ne yow yaa they will put you into office su fekkee ne yow doyu loo leen nag wax Gambia is getting expensive Mungeser. Gambia mungeser ngi seer a bag of rice ñaata nit ñoo ko mën a am ñoo afford am nañ statement bring génnee they wax ne nit ñu duñ dee dem dañ dee duñ dee liggéeyu on time dañoo leave earlier than time these are all happening and nothing has been done baro baro mu ngee wax rek waaye baro nekku di def and then baro lima ma gee gën a naxari ci moom mooy interview sami he's getting more comfortable and relaxed waxi ay kacha kacha kacha kaca rek la baro nekk di it's not making anything sense you know jël loxo mi di ko saani ñu doon wane baro was very humble moo laa wone soo toogee into office too long sa dang dee beew and loolu lañuy reach ci body language di baro uh, last interview yam bi mu am ak ay Africa TV if I am right Sala let me know if I'm getting out of the way Sala yeah let me know if I'm getting out of the way Salah please yeah mu I Africa TV nga gis baro nu moo jëlee loxoom bi dem toog Sénégal télévision like Sénégal nga naan suñ toogee suñu yekkee dina am jimbo am mayonnaise am lii waxi kacaw kacaw as a leader and people are watching baro you know people are watching big time ak ñi nga xamante ni ñoo nekk si sa gannaaw Gambia doxul de wallahi lan azim a bag of rice ñaata la nit ñi di am salaries you know ñu ngi ko wax economy économie bi fu nekk is getting closer to date because eh, December jot na ñun ñi daan ñëw holiday lu mu bon bon bon ñun doomi réew mi la ñoo spend ci réew mi rek wax dëgg ne yàlla rek bii yoon ñu bari ñëwoon soo xoolee this time around margin on numbers statistics su fekkee ne it is right ñu war a xool bii yoon ñuy dugg ci réew mi rek di nga xamante ne wax dëgg ne yàlla li jali ba wax la ñun semestre yi ñun ñoo yore réew mi synchro synchro bi jéene you Gayako, whatever it is, whatever it is going on in the Gambia, don't blow the jailer back. If I'm in ci kaw bi yoon ñun mi nekk ci kaw mënu ñoo ñëw di workload on us Come ni ko telephone calls. si people in your call so coronavirus bi li to support our people back home it is just just just just just not right so people don't have hope because government boo xamante ne tey we don't need those bags of rice barrel pour nga war a distribute the bags of rice in niñ doon wasn't even right you know you know to be honest uh, baro ñun gisanguñ dara loo xam ne Barrow def na ko lima li ma ñaax UDP being the big party uh, maanaam mooy yéen yéen a ñu indiloon Barrow wallahi lal as in this time around so leen dem coalition with any party be very careful who you guys are giving us be very very careful who you guys are giving us you know UDP yéen baro yéen a ñu ko indil waaye Barrow loolu leen yéen kenn ñun ñëpp lañ looraane everybody is suffering everybody is suffering in the Gambia every Gambian is suffering in a way or another ñu ñëpp a nekk di jooy soo ne yéen yéen a ngi koo def yéen kenn ne ñi neka nekk di lor tam dañ you know vote leen people comme ni ko jaaw erek use comme niyo wala. Which time dinañ gina si dinañ def more programme to sensitize the people especially the voters uh, bu vote votal nit because of namule mu leen a may lii eh, bu baro yóbbu yow maalo yi dama ne daf leen yab sax seen doom why do you have to take the rice why do you have to take the maalo man bala nga maa may won ma ne ñoo ñafe naka la ñoo nafe wala yoon bi maa amee mooy suma doom bi nekk ci kër bi jeexal na school amul liggéey wan ko ëllëg naka la ñoo amee income su ko defee ëllëg dina ma indil sàkku maalo boo ma may nii waaye di ma may maalo mu jeex ma war a ñëwaat sa bunti kër di dogo dogo pour la kon kañ la dogo dogo du jeex soo yéen nit Gambie yéen la ñoo gën a waxal rice yi leen nit ñi di je enveloppe yi jox ne na seen doom yi gën a ci kër bi dem mel ni ñoom dem liggéey am xëy am wàcca wallahi lal azim suñ amee xëy am wàcce rek enveloppe yooyu du leen jomba waaye foog ne rek ñu ko soft press di leen fa teg rek enveloppe si du musa géej te yéen si boobaa rek dogo dogo kat rek ngeen a and I think that chain is you know we need to call an end to that you know we need to call an end to that saakumaalo bu la Adama Barrow du mel ëllëg sa doom su xoolee public office bu mu munti doon mu liggéey mu graduate am good results rek mu hold a public office or even a private officer. he or she can buy you that you know bag of rice mu ngi métti dépense nga seer demoon nañ be jën manqué woon na ma ne leen lu tax jën du manqué soo xoolee ñi nappa yëpp nit ci bari eh, tout percent rek ñoo doom mi doomi Gambien wala nat zero point two percent ñooy digg doomi Gambien ñi ci bari gan lañ màggal jotoon gaamo jot ñu waroon a mun a dem seen réew yi nag ñu fonk seeni sëriñ yi loolu nag ba duñ ko boolee dara ñu war a jëm jàll géej dem gaamo ji nag wax dëgg ne yàlla ñooñu noonu tamit suñ fa nekkul askani Gambien dinañ jooy te dinañ yuuxu because ñoom ñoo nekk ci géej gi di nappa di ñu tooga pour lekka demoon na ba ganaar a gënoon a jën te jën moo nekkoon li nga xamante moo nekkoon di most affordable you know uh, naka lañ ko waxee um, um, fish boo xamante ne o oh, fish moo gënoon a yomba ganaar ak ak yàppa waaye su demee ba nit ñi di jënd ganaar bañ a toog a jën kon loolu musiba la so nañ bàyyi loolu xel baro moom wax dëgg ne yàlla amaguñ yaakaar ci moom nag wax nañ ne mu ngi liggéey mu ngi reshuffle waaye depuis bu mu toogee ba tey mu ngi reshuffle di gaay ko dara you know dara toogangul ci table bi dara dara toogangul ci table bi you know ak you know ni moo composé boppam to be honest uh, we don't have confidence in him and then suñu jaree ñu communicate ak suñu nit ñi ci biti waxtaan ak ñoom wax ak ñoom su ko defee ñoom moom seen carte yi ñoom ñoo nekk di soona ñun tamit fii ñu ngi soona because su dara doxutee si kër bi fii ñun ñooy war a am pour step up ñun ñooy am pour yóonee so and I think uh, the youth so far baro boro ñëw pour toog waxuloo ñu woon lii te dañ ne who who feels it knows it you were one poor You you were one time you know hustler like us yaa want woon fii xam nga lu feel you know xam nga ne fii dang daan yónnee xaalis liggéey yow ñaata bosses nga wane moom nga dan change from one boss to another to another to another ba nga make to make just a daily living one a am nga give up nga ñibbi giving up nga you were one of the luckiest one to become you know the Gambian president so loolu rek war na laa woon yow sa jàngat sa life rek waroon nga am na dimbale ñi nga ne ñooy yi eh, waxtu baa ngay dem nag bëgguñ fee am three hours te xam suñ dooree si borom yi duñ fi jeexal waaye yéen mi nekk Gambie amee seen karta yi wise enough let us learn from America let us learn from America nañ seet ku ñu doy ñu sànnil ko buñ ko base Joe Biden dem na def campagne am mayut la sàkk mayut kenn sàkku maalo si doomi américain he was just using comme ni ko jaaw eh, his manifestos yooyu la doon use moom di policy yu moo jël indi ko lan la moo def loolu la doon jaay askan bi I think it's high time ngeen door di dëkk yi di absorb you know waaye nag nañ bàyyi politique boo xamante ni kii man koo toppa waaye aw ma si dara déedéet bul si seet njëriñ boo see am tey seetal njëriñ boo see am ëllëg maanaam office boo mun a téye loo mun a def ci réew mi naka nga mun a tekkee ci réew mi waaye tey lim laa jox rek loolu is just a short term let us look at long term run suñ poos yi mu ñëw bëgg a sonal ñun tam ñu ci bari election it will get closer dinañ try pour seet how man ndax BOD dinañ ma ebal ma dem Gambia inshallah rabbi eh, dinañ loolu lañ plan I might be on the ground dinañ joxal live uh, broadcasting bu fekkee ne may nañu ko we are fully registered both in the UK and in the Gambia and then my press card is there in the Gambia I've got one here as well in the UK Inshallah, rabbi bu fekkee ne rek yëpp jàppandal na na financially I might be in the Gambia then dara duñu raw xew-xew yi jamono dinañ ko dalal with some of the politicians yi nga xamante ne bëgg nañ see wax whatever is on the ground we will bring it live eh, foofu noonu inshallah, rabbi su fekkee ne everything goes as planned ñu move on lii lañ leen indiloon ci eti xew-xew yi jamono di leen bàyyi xel nag yéen mi amul kay tamit ah wax nañ ko nekku nekku dem holiday Gambia rek dafa am kayit wax naa la all that glitters is not gold ñun ñoo fi dëkk xamante ne ñu ne neen bàyyi leen xel loolu bu baax a baax a baax some people are on visa am na si ñoo xam ne ñoom ñu ngi on temporal visas nga war a mun a dem December ndax jar na ko comme lu ñoo waxaat la xam naa ne biyoon coronavirus bi waaye you force yourself bugg a dem bugg a woon people bi ne ko yes I am you know settled in the UK you know who cares and why loolu laa de njëkk who cares and why you know nga jël dugal sa bopp ci guuta dugal sa bopp ci coono ñu gisoon am na ñoo xam ne demoon nañ they were really struggling to make their way back you know ñu ngi struggle foofu Gambia dem nga sa xaalis jeex na sa pocket money ron nga aw Gambia ñu bari majority duñ la lebal ñu bare bare bari duñ la lebal waaye before ngeen a jóg bi very careful am na yow yaa ngee dem xamuloo sa ñëw jaam demam la xam xamul ñëwam xëy sa visa bi was just meant to be three months pour mu expire you need to renew it nga dem toog foofu mu expire o oh yes soo ñëwaatee baag dinañ ko renew but wala bala ngaa dugg si war si réew mi coono yooyu noonu ak struggle bi waay waay waay three months la am xamuloo is is is corona nga dem toog Gambia ñu toog fa buntay tëj boo day tëj nga toog fa cang fa di nga gëj a snap de di nga gëj a téye téléphone bi di snap naan man na moom dara man ci xale yi tey man ci xale ete kon bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax loolu lañ leen indi doon ci eti xew-xewi jamono ñu ngi jégalu nag bu ñu ko gisee xaste benn yoon xew-xewi jamono la duy easy at all waaye nag wax dëgg ne yàlla eh, yar ak teggin ak discipline nag la ñuy sàkku bu baax a baax bu jógee ci képp koo xamante ne eh, moo nekk behind rawatina nag jógee ko ci ñun di ñëw ci yéen waaye ñu ne tamit yar ak teggin ak discipline la ñuy sàkku ci yéen jimale ko ci ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy liggéey ci ci ci kanami ci kanami askan bi kon ngeen bàyyi loolu xel. Eh, jaru ko décembre la dina ñëw dina romba ñu xaaraat leneen décembre su ko defee rek corona jeex ñu ànd ñu ñëpp fete ko xëj na balaa loolu sax di ñàkk di nga am sa settlement wala nga am sa British passport te keroog la snap di gën a neex te keroog la nag wax di neex yàlla fesal sa bopp di gën neex bu fekkee yow nit yi fes nga wala nit yi wane wu nga keroog la moo daxa comme ni ma ko waxee la waaye duñu delluwaat we still emphasize on this yéen Gambien si toog nekk America please jóg leen ngeen yëngatu you oh, know yëngatu leen I can remember Sadio is there maa mun a remember Pa Ousmane Diouf dafa daan mun a indi lu bari muy Sadio lawyer la is a Gambian lawyer to a lot of Gambians you know nañ try to ut bi bu fekkee ne xamuloo Gambian oo keneen waaye trial to keneen ñu wàññi wante bi su ko defee yéen ñu mun a am kayit a am kayit buñ fàtte ne ñëpp emuñ wallahi léegi-léegi ma gis ñeneen ne naan ah man Gambian community bi daal wax nañ bugguma bokk fu Gambian community bu bokk waaye yow soo bokk fu Gambian community bu bokk si te li maa su waxtaan jotee dañoo ne may ñu ñu waxtaan waaw may ñu ñu waxtaan ak suñu ay mbokk kon nag comme li wax la foo gis rek mbooloo bu gis rek am na di baas andi am na di wut andi baas yow tey mën nga tase Eva mu bon loolu waaye mën nga mu baax lool ba tax nag yow lu la Eva doon xañ Sall woon na la bunta bi people are different you know people are different in in, in sizes in heights and then noonu la ñu tamit when it comes to heart and then you know trying to give out information yéen Gambien yi nekk America comme ma ngeen ko xalaat am tey dama gën a delluwaat di ko wax ñi amul kayit laa wax learn from what happened in the past get yourself up ngeen dem uti seen passeport o seen settlement o seen documentation su ko defee ngeen mën a settle foofu noonu nga xam ne kenn du leen gëccen su Joe Biden sax ëllëga si biir keneen kuy ñëw sax ñu ko wax su dee dafa rees reesisut whatever it takes rek du leen mën a sonal te leen mën a xatal rawatina yées yi ngeen xamante ne def ngeen ko fi nga xamante ne muy America next week la muy doon ci yeneen eti xew-xewi jamono am nañ li nga xamante ne maanaam mooy liggéeyante gis nañ ay téere ñu sul ci bàmmeel bi imaam Abdoulaye Faty def na ci li nga xamante ne maanaam mooy waxtaan bu gàtta mu ngi saakule ci whatsapp bi bu baax a baax xam naa ne jot ngeen ko gis nañ ki nga xamante ne mu ngi taka korte jël gémmiñu animal bi di ko tëjee korte bi mu doon lu daw yaram lu na xaree seetaan nag dinañ leen ko indil vidéo si leen ko suñu ko waxtu mayee next week incha allahu rabi ci liggéeyante yi alaaw marong wax na ko ci biir këri nañ njëkkee ci këri saani wante korte yi nit ki dem be dee nga dem fu baamel nekk baamel ak nim lim demee nga jël ay téere di ko fa saani itaxi laa ragal leen yàlla next week si loolu la ñuy ñëw maanaam muy liggéeyante yi korte yi fan lañ ko jëmale election time ngay ñëw li ci bari nag waxtu bi la dee jot ñi nga xamante ne ñu ngay jongante di lajte toogu yi ñoo gën a mën a liggéeyante di yom di yónnee ay nit ñi yooyu yëpp waxtu élection su moo jot si daf dee bari Gambia xale yi dina mes ni menteng vagin si dina mes ni menteng waxtu yi jot na su ko waxuñ ko nag tuumaluñ ben politicien waaye ñu ne waxtu élection mu ngi jot su jotee nag liggéeyante yi daf dee bari ñuy gis ñuy ekkati gémmiñ di fa ay téere di ay bagage kon dinañ leen ko indil yëpp ñu tegal leen ko playal leen ko amul dara lu ñu sos lépp lu ñu gis dañ ko gëstu waxtaan ci ak nit ñi ba am lu ñu leer moom lañ leen tegal Imam Fati def na ci vidéo mu ngeen sàkku leen mu ngi YouTube bi sax mun ngeen ko dem gisi ko su ko defee rek dinañ leen ko indi la ngeen gis kooku jël animal bi bo xam ko di teggee ba ñam yëpp ay korte la wax dëgg ne yàlla liggéeyante bi mu ngi ci biir next week su fekkee ne amuñ dara loo xamante ne maanaam tegu na ci taabal xew-xewi jamono rek dinañ ñëw ak liggéeyante yi ci biir liggéeyante yu bone sànni wante korte yi dinañ ci ñëw incha allah rabi nag dinañ leen woon évidence ñu ngi jégalu bu baax a baax bu fekkee am na benn kàddu boo xam ne rotal nañ ko fii te àndut ak yar ak teggin ak discipline jàppale na sama matadi la ak tànka doomi waaye du ne sama euh, fit moo ma ko may wala sama jàmbaar ya wala sama mun wax déedéet wax naa la kon tangi tëju ci konnaam ka ñemañ caméra waaye bu waxee aduna toj bu waxee nit ñi yuuxu naan ko yow ndeke ni nga waxee wax natura rek bu ñu yarate gis ngeen ko maa ngi dem di bëgg a sax natura rek bu ma yarate kon nag natu boobu dañ koy nangoo rek sante ko yàlla ànd ak ko yàlla nag ñu teg natt boobu noonu di leen jaajëfal bu baax a baax bi beneen yoon yeneen eti xew-xewi jamono ku leen cee gunge xam ngeen ko min ngeen place bi kon nag du ma def dara du naa leen au revoir ñu fanaan jàmm